bu la àdduna diggée ni da nga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp kenn fi sax allahu akbar alhamdulillah asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di féddali ko cofeel di am mbégte ñëw ak yéen ci kàttanu yàlla seen émission bii di ndénkaane mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal way tawat yi yàlla fëgg seen bopp way dawlu yàlla yërëm leen ñun ñu fi desandi yàlla ñor di fan yi te wéral cër yi ñu ngi nuyu soppe xarit am di jàmm képp koo xamante ne bu nu àddoo yaa ngi teewlu ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm suutura xéewal teraanga ju sax dakk yàlla na ko yàlla sotti ci yéen ñu ngi ñaanal suñu mbokk yi ne ci bërëbu bërëbu yarukaay di jox rek ni jub du fa tee dem waaye dëngit du fa tax a dem ñu fa dem mu doon seen faxasug bàkkaar yàlla na yàlla euh, jéggal leen pour yar la yal na yàlla def ñu yaru ndax nag ku fa dugg ku ne rek am na lu la fa dugal kon ñi yal nañ seen faxasug bàkkaar ñee yal nañ fa jaare yaru ñu ngi ziyaare képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak ñun ñu ngi lay jox cër di la ñaanal jàmm di la yéegal sa yéeguwaay ñu la lu ñu ko ñu ñu ñaanal jàmm maire Thiama ñu ngi la wax asalaamaaleykum sa ñu ñu nuyu it ki nga xamante ni mooy soxna Aïcha moom it fa tabarakallah miin ngeen ko ci biir ndénkaane kon teew na ànd ak ñun ñu ngi ànd ak yéen di ñaanal jàmm kenn ku ci nekk foo mën a nekk ñu ngi lay ziyaare di la ñaanal jàmm li ñuy def rek mooy ànd ak waa régie ñëw ci li nga xamante ni moom mooy revue de presse bi ñuy doog a ñëw ci li nga xamante ni moom la ñu fas yéene waxtaane kon ñu indi ànd ak waa régie incha allah ci kàttan yàlla Modou Mbacke moo fa nekk euh, ñang baalo borom sant bu neex bi ñu ngi koy ziyaare Modou maa def. ñu ngi sant bu baax naka suba si. sant yàlla bu baax. alhamdulilah maa ndéegu nga. waaw mus nan tuuti rek mus nan tuuti. waaw waaw ñun xam nga yéen moom da ngeen di mus rek. te tuddee tur waaw mus rek mus rek waaw mus rek di mën a taxaw liggéey. waaw waaw waaw gaa. ana tey lan nga ñu indil ci revue de presse bi. waaw yëglekaay yi xëy di génn sakkan na ñu tàmbalee ko ci Dakar Times moom xëy na ñëwaat ci diggante Sénégal ak France yëglekaay bi ni jot na Sénégal ci boppam gën a bàyyi xel secteur privé national bu réew mi ndax gis nañu lu fi am lu baax France moo koy teg loxo yëglekaay bi ni xolal li nga xam mooy agence française de développement yàgg na ci réew depuis 46 ans boobaak léegi waaye nekkalu fi Sénégal France la fi nekkal ndax lépp lu baax rek dañ koy jox France kay baa ngi lim benn par benn bokk na ca lu jëm ci tabaxum talim ñi nga xam ñooy waa France moom ñoo fi indi Eiffage ñoo koy tabax wàllum télécommunication Orange ma nga noonee pétrole bi Total ñëw na ba ci sax ndox mi nii naan jox nañ ko Suez kay bi ni jot na ndax nag ëpp na yàgg na metti na France euh, xoj Sénégal lànk bañ koo bam source a moom itam ñëw ci beneen mbir yëglekaay bi nee na fi mu toll nii day lu jëm ci maanaam université Sénégal yi anam bi nga xamante ne bi ñu leen di joxe seen restaurant yi repreneur yi la ca xew doy na waar yëglekaay bi fàttaliku leen barki démbum fee nga xam mooy Gaston Berger tëj nañ campus social ba ndax ñàkk ubbi restaurant bi ndax bor bu nu ameel nga ko doon doxal tey jii nga dégg ko fi nga xamoo ci Ndakaaru waaye la xew ca Thiès moom fa la gën a méttee na yëglekaay bi nee na foofee day dañoo jox restaurant ba entreprise boo xamante ne bi xamuñu ko ci wàllu guni mel te itam nag lam propose si njëg moo gën a cher lool lan ko bañ a jox ci gis na ni ñeen ñoo xamante ne bi dañoo bëggoon a jaay lu yomb waaye kenn jox leen ko yëglekaay baneen la ko tujjee moom dafa ñëw ci fee nga bi nee na fi mu toll nii Petrosen day directeur ba leen tuumaal ni moom daal doxul yoon lam fay def caxa caxatee yoon la fa nekkee mayul sax liggéeykat yi ñu am mbirum syndicalisme waaye tamit mu gis ni moom daanaka daal ma ngay jaay doole askan wam yoon donte moom lànk na kàddum jibut ci mbir mi la mu wax mooy du becc mbirum Petrosen ci mbedd mi yëglekaay l'Observateur moom dafa xëyee président Macky Sall yëglekaay bi nee na président Macky Sall day moom fi mu toll nii tembe mi ngi ci waajal lu jëm ci élection présidentielle 2019 yi ndax nag laataa benn fan décembre gii daañu ko investir bu ko defee mu doon kañ daw benn bokk yaakaar waaye balay boobu de président Sall ma ngay wane boppam ci biir na ay kàngam jox leen

maam Adama Gueye mi nga xam te ne bii moo jiite Sénégal bu bees mi ngi wéy di seeti opposition bi dem na seeti El Hadji Malick gàkku nag nee na Sall la mu mooy fëkk élection yi maanaam daal ci gàttal sàcc ci élection yi la bëgg a def ndax gis na ni kat pare na ngir ni premier tour ba mu gañam ca loolu kenn du ko bàyyi muy yàlla na ko sénégalais yi xam laas moom ñëw na ci coow lu bari la am ci réew mi ci mooy ñiy xarum di faat seen bopp yëglekaay bi ni yàgg naa am ba ca mujj nag mooy Cheikh Tidiane Diop mi ñàkk bakkanam bari ki démb demoon ca buntu pale ba sotti boppam essence taal lakk-lakk yu metti moo tax mu génn àddunaam yëglekaay bi ni dugguleet ndax jamonoy Abdoulaye Wade tamit daana fi am ñu ngi fàttali ku mel ni ki Penda Kebe bi nga xam te bi Italie la lakkee woon boppam daal di génn àddunaam waaye tam ñu gis ñeneen ak ñeen ñoo xam lakk nañu yëglekaay bi jox kàddu gi ay kàngam ci wàll wi la ñu gis mooy li fekk Sénégal ni muy doxee ci wàllum politique soppi wuñu ko dana fi yàgg di am ndax nit ñi kat buñ faleem njur ba noppi buñ faleek nguur ba noppi dañu gis ni dañ leen a bu nu woppee du nu faju bu nu xiifee du ñu lekk bëgg liggéey amuloo ko nit ñi dem ba jaaxle amul ku leen taxawu moo tax ñuy taal seen boppam yëglekaay bi ni lii kon faaw ñu dem ba soppi doxalin nit ñi kenn ku ne yëg boppam ci doxin wi ngir nag mën a am fu muy mën a féexale xolam fay amee lu ko naqari mama ba Modou Mbacke am na solo xanaa foofu nga daanelee rek foofu laay yëkkatee man dama xalaat ni. Mhm. nit ndax am na lu jar ba muy dem bay taal boppam. waaw loolu moom. ndax nit war na egg ci foofu. waaye doy na waar loolu ndax maanaam xaru moom. Mhm. Euh, ci ab julit. waaw moom lu lislaam bañ la. Mhm. Euh, atte bi ci wax sax diis na lool lool lool. waaye bu ñu ci àdduna. Mhm. am na ñu wax ni dañoo gis ni Sénégal nit ñi ku amul doole da ngay sonn. boo amee doole nag xëy na doo yëg li xew. ndax foo dem loolu jënti mu lu jëntiku waaye bu fekkente ni yoruloo alal dan lay xañ say àq ak say yeleef. comme Cheikh Tidiane Diop mi nga xam te ne bii bu ñu sukkandikoo ci avocat maître Assane Dioma Ndiaye moom nee na kooku dafa nekkoon ab immigré ñëw ah. Sénégal am gàllankoor ak yoon ñu jàpp ko yóbbu rëbës rëbës sax fa la ñàkkee benn loxoom. Ah. ba ñu koy faj mu am erreur médicale saa su ne muy laaj lu tax li dal ko. ñu naan ko demal indi ay këyit mu dem hôpital Dantec ñu koy wërwërloo maanaam daal dafa dem ba xolam dem ba fees mu am lu ko naqari mhm. waaw mu jàpp ni kon moom lépp lu ko naqari xëy na njiitum réew mi loxo ma nga ca biir ndax fëgg na ba tàyyi ndimbal xëy na amu ko mu dem ba ca bundu palais ba taal boppam li am daal mooy xëy na na ñi ñuy fal ak seen ay démembrement moo xam santé moo xam ñu mën di doon na ñu gën a bàyyi xel askan wi bu baax a baax ndax day tax ba askan bu ñu yëg seen bopp rek. kaa boo amee jafe-jafe am foo ko mën a jooy ñu mën laa diglu dana tax ba doo àgg ci yenn yi incha allah. waaw te di laaj it ana ngëm yàlla aussi parce que am na yoo xamante ne ñàkk gëm yàlla. la la loolu moom hmm? ngëm yàlla bokk na ci ñàkk aussi dëgg la métti na. Mhm. sàggante métti na. Mhm. manqué assistance it waaw dégg naa ñu ne xalima gi fend na bu yàgg ngir ndogal. ci lu wér loolu dëgg la dund rek force am muur. loolu dëgg la. leneen li mooy ku jëg politique bi moom fi nekk nii jax na de yéeme na de. lool ndax fi mu dëgmal la. Mhm. ndax réew bu dëgmalee élection présidentielle ñu war a tabb njiitum réew mi daanaka ñeenti weer mbaa ñett da suñu digganteeg loolu faaw cool yi bari. da ngay gis waa pouvoir ñoom bëgg a toog ci pouvoir bi. ña ca nekkoon mbaa ñi bëgg a ñëw jël ko ñoom it ñi ngi xeex kon sawa cool yu bari li am solo mooy askan wi ñoom nañu xam seen intérêt fan la nekkee kan moo am programme bu baax ngir réew mi mhm. ndax ki fi nekk li muy doxal doy na leen yaay koy dolli beneen mandat mhm. wala am na keneen kun jàpp ni bu ñëwoon dana def luy tax Sénégal suqalikum mhm. askan wi ñooy tànn ndax ku ne am na programme boo teg askan wi doonte coow li bari na nag am na solo jërëjëf ñu lay ñaanal kendal ak jàmm amiin ñu borom naa la bu baax nekkal si jàmm merci beaucoup merci merci jërëjëf kon ñu ngi jëfal moo du Mbacke ci euh, am solo li mu indi li mu amee solo lool macha allah muy revue de presse bi xam naa ñoo ko déggandoo liñ naan luy ay di njàmbat euh, coow laa ngi noonu coowal politique la kenn ku nekk mi ngi xëcc di fëgg dënnam naan man la xaw ma nag euh, kan la ci ñoom waaye and ak lu mu mënta doon kenn ku ci nekk ak xëcc woo mënta xëcc rek na nga ko xëcc xëccin wu rafet wax it loo xamante ni di nga ko respecté ëllëg ndax euh, comme niñ koy waxee archive yaa ngi fi. Mm-hmm. Euh, nit ñi dañuy denc léegi dara réeratul dara nëbbootul ndax lu waaye di wax rek na wax lu wóor ndax euh, jamono mën naa dem ba dab la ñu génnewaat say wax di la fàttaliku kon gor daal ca kàddoom dañuy fexe tànn kenn ku ci nekk na nga tànn ki la gënal mais tànn ko ci ngor mm-hmm. tànn ko ci diine tànn tàng ko tànn ko ci tranquilliser encore parce que am na ñoo xamante ni nañ ma baal mais fitna ak xët la ñuy demee caama ana sa gis-gis ci revue de presse bi. waaw maman maa ngi lay ñuy Adja maman Marie Ba pour lu maa ngi lay nuyu di la ziar bu di la jox sa wàccuwaay di nuyu sama doom ji lay Maxtaar lay moom di nuyu maam Dia. kii di tardé moom borom ñaar jaww moo war a tardé. aywaay <laughs> la bàyyiwul nga ñëw heure wala. <laughs> ne ko ndekki ma téye bàyyi ba suba gi mu woo ma ne ma man tey maa war mais waroon nga xam ne tey yaa war a def. non Mayte de. naa ko wax xew mu lay bàyyi heure wala wala foofu naa ah. awa wala ñaare. bàyyi ko mu dal caam caamoon naa la ah. namoon naa la di la ziar bu mu ne dama ko namoon xam bi ci kaw <laughs> ci kaw li ma gis fii nekk dama laal ma ne lan moo tax euh, lan moo tax nit ñi bu ñuy taal seen bopp rek dem ba pale léegi sa bopp léegi pale foofu taalukaay la kër da taal sa bopp dañ xam ne ah, mais duñ la fa fekk kon kay kon kay bëggoo de. mais lu tax ñu dem pale pale message mu bëgg mu jàll moo tax. message man gis nga ba maa Marie. Mhm. ñun dañu nekk ay jullit. Mhm. te dañ ñu ko xaru sax. Mhm. li li li lislaam wax. dañ ñu ko xaru waruñu la suul. waaw waruñu la julli waruñu la. suul duñu la sang julli duñu la suul ci sëgu jullit yi. ci sëgu jullit yi. mais ñoom xanaa dañuy fàtte loolu. te léegi dama xamul àddina bi lu fi jar jar jar jar ngay dem bay dem di xaru ci buntu pale. lu tee borom pale bi day dox doxam di. say mbokk ñooy ñu ko fi def fu mu mujj fenn. Mm. gis nga man dafa am yoo xam ne da ngay gëm sa bopp ñàkk fi lañ ko fekk. te lépp ci suuf nga jëm. loo am am am dégg man la ancien ministre am na ancien député ancien président waaye mosoo gis ancien imam wala ancien ancien ancien chef <laughs> ancien xalif général. da nga koy nekk ba illaa yomi diini. man góob mooy yi gis nga nit ko lu la yàlla mu nga Macky Sall mi ñu naan Macky lépp mënu ko régler. man dama toog sama kër aw dépense.

luy ndey taal sa bopp am na yoo xam ñàkk gëm-gëm la mhm. ba pare nañu bàyyi fay-fay bi ñuy tudd ki mhm. nekk Petrosen mhm. waaw liggéeykat la nañ bàyyi nee naa nag journaux yi kuy la ñuy seet waaye monsieur Faye mi nañ ko teg ci teguwaayam mu ngi liggéey moo tax Macky Sall teg ko foofu nañ bàyyi jàmm suñu bañee ma wax leneen waaw kon jërëjëf Thiama dañuy ñëw ak maam jaar rek moom mu indi gis-gisam ci li nga xamante ne moom mooy revue de presse bi Diarra Bousso. jërëjëf mama maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar met sa nga de ah gis nga ah. dama def yëf yu mag rek. Ah, waaw weex bi sax na doore. <laughs> mooy waajal gàmm gi. ah moo taxit macha <laughs> allah. waaw comme niñ ko ni ko Modou Mbacke waxee rek euh, revue de presse bi moom tey man dama dama ko jàngat ba pare tiit. Mhm. parce que man le moo xaru sax dama koy ragalu tudd ndax nit lepp lu la dal ci aduna mhm. fekk na yalla bind ko ba pare mhm. destin la deug la li li ma liiroon ci une si longue lettre bu Mariama ba mu ne le destin empoigne qui il veut mhm. destin jar-jar la bo xamne yalla moko mo la ko force dang nga jar kon man gisuma si ay xar wala dara nit xam nga dundu ba yakane do doo kasso kaso bis ñew rek nga kaso parce que lolu destin la yalla moko bind da ko mooñaale ci sa da fay am da ngay jek jek gis nit bu doon gis yor ñaari botam jek jek gisatul non la kon lolu man ya, japp ma ne nit warna sey mëna tal bopam tal bop mom. dama yaakaar ñi koy def est-ce que ñu ngi ak seen xel normal la ko sot ah, sa bëgg sot sa bop essence kos kos almet tal sa bop lolu mom man naa ah, batay man mënu ko gëm parce que parce que man lolu man mom mënu mom mënu mako nangu xaru nak mom mom moy dernière chose ndax nit bu démé ba xaru rek génn na dafa mel ni génn na ci lislaam parce que xaru nag dafa bokkul ci suñu diine te nit boo amee foo sukkandiku am foo tënk ne ci lii laa nekk da koy fësal te ñun suñu diine dafa nanguwul xaru ah li ñuy wax nag naan élection bi nii élection euh, mama hmm. réew mi nañ ko pencoo te bañ koo pàccoo hmm. may nees de ku ne capp de ah? waaw mooy yoon de hmm.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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وحنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله maa ngi nuyoo di sama ñaari yaay bopp yi ma bokkal plateau bi mhm. ak Seexuna ak Maam Jaara di nuyu boolem téléspectateur boo xamante ne yaa ngi suivre Ndenkaane sur la DTV man moom jàngat bi nga xamante ne am naa ko si ki nga xamante ne dafa xaru euh, avant xaru bi am na lu ko sooxe mhm. nañu xool ñi nga xamante ne dañu nekk si wàllu santé bi mhm. parce que nit ku du ñëw rek xalu am na loo xamante ne moom mooy sabab bi lan moo motiver kii ba mu dem xaru. Hmm. parce que nit ki doo ñëw rek di ko juger parce que xamoo qu'est-ce qui se passe dëkk bi nag dañu toll foo xamante ne tant que nit demul ba sës ba mbëkk miir bu duñ ñëw wax ak yow santé dafa nekk loo xamante ne dafa sacré. dundu doomu aadama moom moo si nekk parce que ñin fay teg dañ fa nekk pour sauver mhm. sauver bi nga xamante ne moom lañu war a njëkk def mooy dañu am benn accueil boo xamante ne c'est salaire mhm. parce que nit ki bu ñëwee di wax ak yow parce que nit ñeneen jaar na daan teg jaar na fu nekk mais faalew ñu ak fa mu jógee ak étape bi mais nit ki tam bu mu dem a dem ba am yenn xalaat yi nekk la nga xamante ne fa yàlla dañu waxee ulaika kal an am ñu dem ba nekk ay bàyyi ma bàyyi ma yi sax naan déedéet ñi maluñu ñoom te nit ki moom bu xalaatul rek am na la a neen damay duggaat tam si fi nga xamante ne moom mooy gouvernement bi seen propre seen problème majeur bi mooy entourage bi nga xamante ne ñoo leen wër seen intéret personnel lañ fi teg nañu discours yi ñuy jël di ko wax nañu ko respecté bu ñu toogee ci régime bi te régime dëgg du leen de

benn woote yi yi fi ne yi fi ne baax na yi fi ne baax na lay maxtaar waaw laajte woo premier yi fi ne baax na yi fi ne baax na waaw kon tëcc baax na merci kon ñu gën a redoubler d'effort waaw ñu redoubler d'effort mu xam nga satisfaire ñëpp gaa yombul mm-hmm. yi baax na mais ñu gën a redoubler euh, d'effort mm-hmm. euh, naa ñu ngi am mbégte di la dalal di la namm lool di am mbégte bokk ak yow plateau bi ñu ngi lay ñaanal jàmm ñu ngi rek di nuyu ñu bokkal plateau bi di la nuyu xam nga di nuyu Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi seen à travers la DTV mm-hmm. ci émission bu mag bii day ndénkaane bon man xam nga revue de presse pratiquement daf ma rëcc mais damay rebondir rek par rapport ak maire Thiam li mu ak ñoom li wax mm-hmm. nii ci laay rebondir man damay wax ni que ni tey euh, gouverner c'est prévoir mm-hmm. te man damay jàpp ni que ni Sénégal fi mu toll tey majeure partie li nga xamante ni mu ngi am fii ci réew mi pauvreté dafa bokk ci li koy ak lu waay mën a wax rek tey boo defee constat da gis ni tey Sénégal pauvreté bu extrême daf fi am nit ñi ñu ngi sagu ñu ngi sol yére dem ko ñëw mais tey soo seetloo li nga xam moom mooy xew ci nga làmb ko dox mi tey mënoo dox benn 10 mètres wala benn 20 mètres xam ne amul kenn ku taxaw sa kanam di la expliquer ay problème tey dem na ba nga xam ne Sénégalais yi tey rusatuñu taxaw ñaan parce seen ñàkk moom moo dem ba toll foofu noonu li ñu wax naan que ni ñoom itam mës wax tuutee tey ñàkk doon weddi yàlla parce que tey ñàkk dafay yóbbu tey nit ñàkk am lu mu lekk nit ñàkk am fu mu fajootu tey lii c'est des choses yoo xam ne ay signal la tey ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jiite dañ ko war a décorer parce que lii c'est un dëkk dafa am yoo xam te ni tey waa ji def peut-être tey ci diine mhm. tey ci diine soo ko nattee ci diine tey. non génn na diine moom. non dama soo ko nattee ci diine. man nattuma ko ci diine ba tey dama ne boo ko nattee ci diine. diine daan na ko xaru diine kii ko. yàlla wax na ci alxuraan que ni moom mu ngi ànd ak aji muñ kat yeeg yooyu ainsi mais boo déggee cadre diine nga teg ko fële. nga indi ko ci cadre boo xam ne purement social. Mhm. Mhm. tey man pour man dafa def un acte fort. xam nga mooy acte fort bi. Mhm. acte fort bi mooy que tey il a lancé un signal. signal boo xam ne autorité njiitu réew ñoom ñooy diriger Sénégal dañ ko war a dañ a capter jéem parce que tey yëpp pauvreté moom moo ko indi. Mhm. ñàkk moo ko indi ñàkk ay infrastructures de santé yu baax ñàkk ñàkk réew mi doxul. infrastructures yooyu noonu yëpp moo waral tey lii egg si loolu nag tey ñoom dañ ko war a décorer tey taxawu Sénégalais yi si domaine lu bëri vraiment parce que réew mi dëgg dëgg dëgg fu ñu toll nii moom mooy loolu. beneen mooy par rapport ak euh, opposition bi ak par rapport ak li nga xam te ni moom moo am institut ñun Sénégalais commencé ci man ñun ñoo war a tànn ay njiit tey ñi fi nekk yëpp. tey ki fi nekk di doxal tey mu baax mu bon kenn ku nekk ci ñun am nga ci part responsabilité parce que yaa ko fa li muy doxal tey mu neex la mu naqari la boo ci àndul nga ci ndaxte tey aussi il faut que ñu xool nit ñi li ñuy indi est-ce tey kii mën na ko jëmmal tey dëkk bi tey nit ñi duñu wax ci emploi des jeunes duñu wax ci industrie duñu wax ci secteur secteur primaire DER bi ay agriculture ay pêche ay industrie yooyu duñ ci wax ah yooyu yooyu yëpp c'est des choses yoo xam te ne tey ñiy jiite duñ ci wax tey kon tool tey ñoom ñëpp ñuy wax pétrole la ñuy wax tey opposition bi koo dégg pétrole leex naa sax lan ñoom ñëpp nañu wax lan la def ci emploi tey lan la ñuy def ci tey lan la ñuy def ci secteur primaire tey industrie tey lan la ñuy def si énergie parce que tey mënoo wax industrialisation te waxoo énergie parce que tey pour nga dem si boole industrie pour nga am énergie bu doy tey mënoo yor sa société bi dafa def transformation bu ñu les factures courant weer bu dee nga bëgg tëj société bi yëpp c'est des choses yoo xam ne tey ñoom dañ ci war a wax ci ñuy fal te buñ ci waxul Sénégalais yi vraiment war nañ am fulawu ni ñuy fañ mu nekk ñoo xam te dañu am ay programme yu dëgg yoo xam ne mën nañ doxal réew loolu la emploi déjà amu fi ANPE lu fi jëriñ waaye man emploi déjà yéen jeune emploi euh, Thiam li mu wax am na solo parce que comme ni ñu ko waxee programme la kenn ku ci nekk na fexe am programme bu taxaw boo xamante bu dëgër la bu ko tegee bu ko nit ñi ñu déggee bu leen. waaw léegi ana programme ki wax ñi fi nekk wax programme. Euh, dama ne nit mhm. wax programme. tey léeg-léeg wax programme tey nit ki ko profilé tey maire Thiam am na loo soo ñëwoon toog ma ko wax nga ko mhm. ko nii nga dem dégg mhm. bu ñu benn laaj ñaar dañuy xam ne yow mii yow lii mënoo koo jëmmal. ak constaté mbir ñun ñëpp constaté réew mi metti na def ay constat yomb na mais apporte ay solution dafa jafe te tey pour que nit ñi apporte solution il faut ñu tànn nit ñi jiite. waaw gis nga caama ki fi ne li fi ne baax na mm. mais loo gis rek gën a baax dafa gën a teel soo gisee muy waxee na tànn pour ñu gën ko motiver wala mm-hmm. bokk parce que euh, bu ñu ba tey ngeen tànn non xam nga bàyyi seen bu ñu waxee élection yi moom gagné ko premier tour par rapport au président wax dina jafe trop beneen équipe lay doon ba dina am changement maanaam li ñuy wax mooy li ñëwagul. Mhm. équipe bii di ñëw la ñu wax nañu fexe xëy na ki fi nekk mhm. mën na continuer mais mu gën a góorgóorlu wala boog bu fi jógee keneen kii ñëw na fexe def li ëpp li ki fi nekk def la foofu lay waxee ak maa ko dégg mhm. waaye di wax ñi taxaw aussi di xëccoo nañu am programme waaw waaw kay ñi xëccoo ñoom waxal ak ñoom a wax waaye waxoo kii moom ki fi <laughs> nekk am na solo ki fi nekk moom baleen ko rek moom mu liggéey liggéey mu ngi dem eh, am na solo dañuy ànd ak beneen élément rek dem ay marché xool li nga xamante ne moom lañu am tey ci marché bi ñu ngi ànd ak waa régie dégtal leen ko dem te dikkaat incha allah ci kattanu yàlla. donc mbokk téléspectateurs yi comme niñ koy baaxee nag di defee saa su nekk nuyu nañu leen euh, ngeen ànd ak Lalla Aïcha xale bu rafet fi nga xamante moo di DTV ah au marché la wax euh, ba tax na nag du def lu may dugg ci marché bi fii nag euh, ngeen di gis mooy marché ci leen daal joxe sama dépense bu ñaawul boobu nga xamante moo di junni tabarkàlla kër yëpp a ko soxla ñu xool nag kan la àndal tey ak kan lan la fas yéeneen dugal ayca Mouhamed topp comme ni ñu koy baaxe nag di defee nag euh, saa su nekk rek daal di dugg ci biir marché bi euh, daal di wër xool tey ba xam euh, kan moo am chance tey lekk sama junni bi sama dépense bi tey ma xool laa koy jox dama xamul nag maafe la may toggal wala domoda la may toggal wala suppu kànja la may toggal tey daal xam naa ne ki ma nar a dajal daal tabarkal la nar na ba xam tamit aussi lan la may wax li nga xamante ni moo di lëjum rek comme ni ñu koy baaxee nag di defee rek saa su nekk ak di ko defaree ay ca léegi nag dañuy jàll ci biir di la Lamine gis nga marché bi tabarkal la neena leen marché bi dafa ala daw me melni gis na ben jongo ma de mu yor leketam ki dafa melni commencé gul sax ndug ki mo am chance nak pour lekki sama jundi salam alaykum soxna si na nga def tunnel nga jakkalok sama kameraman est-ce xam nga bi ban tele la bi dafa melni dia tv la waaw kay ñun nak ñoy ñew euh, di la nuyu di la sargal nga yor sa leket fa yéeneen ndug legi nak dañuy def émission bu tuddu au marché ñu bëgg and ak yow ma jox la sama jundi bi nga daal di ma nduggal après ma am lenn rek lu ma ci tànn laaj la ko ndax dina la neex ah loolu moom dina ma neex moom waaw kon jëlal sama dépense ak lo may toggal tey ceebu jën ceebu jën ay ca yow laay ay Aïcha momadou Lamine mu mel ni dal naa ci comme ni ma ko waxee woon rek ah, sama jongoma bi ah, tabarkàlla ma ma fas yéenee ndugal nee na ceebu jën nag la ma fas yéenee toggal maa ngi koy déglu Aïcha soxna si yow laay déglu koy ndugee sama client bi fee laa liggéey. ayca ñu ngi dem. waaw sama xarit. waaw waxagoo ma tur bi nag tur bi naka la. Rama la. xam nga DTV dañoo baax ñëw rek jox la dépense laajul la tur. waaw gis nga de. ayca léegi lan nga ñuy jëndal fii. jënd laa bëgg a jënd. xool sama xaru tëll yu baax. jënd ko rek fas yéene togg ceeb jën bu xonk. ayca kon yow laay jënd. waaw kon baax. an sa client. ñëwal yow sama client kaay. xarital de la may jaay ni bu baax fas togg sa ceeb xonk waaw sama ceeb xonk lan ngay wax waa DTV ci suñu dépense waa DTV moom seen dépense moom macha allah lii la moom kontaan nañ ci trop léegi nag nañu topp rek ramatulaay ba tey moom la ñu fas euh, mu dem daal di daal di daal ah jamono yi neena na ndugg moo ko dese. Rama lan nga fas yéenee ndugg fii. waaw sama yu sew da laay ndugg. léegi lu tax nga taamu fi waaw parce que man fii laay nduggee. Eh. sama client la depp bu yàgg ba tey. ma ndugam dafa jar xanaa. waaw. ay te léegi lan ak lan nga fi bëgg a jënd. waaw su batancé carotte lépp lu ñuy ndugg rek pour ceeb. ay te kon baax na yow laay dégg. li xamne xel dalna ak sama junni bi rek kan Apa na waa Ramatulaay léegi nañ fi lan mo dess Dakar ak bisaab dalaa na la jënd ah yo sa ceeb nar na neex de

ca jaama genn waa liibaru tuut tomate genn waa liibar ak kaane poobar poobar laaj ayca Ramatulaay yaakaar naa suñu ndugg pare na wala des na pare na ayca kon baax Ramatulaay dugg nañ ba pare. waa la dugg naa ba dafa melni sama junni bi sakkan na da ah sakkan na da gis li ma ci am yëpp. ak tv rek. lepp ay yom ak tv rek tout est possible. ca naka nga gisé sa ma sha allah dugg na ba paré amna na lenn nag lu la ci bëgg laaj. mu commencé ci bi lan mo tax nga tamu ko. ah carotte de mom ferñeent yi si biir. baxna na. bëri na ay ferñeent te nee surtout nak sama doomi dañ ko bëgg day léral bëtt ñu ne. ah day léral bëtt ak lan noonu. Ah, li si nekk daal bëri na kenn mënu wax yëpp. waaw ayca kon baax na léegi nag euh, mbokk téléspectateurs yi nee naa leen saa su nekk rek euh, nii la ñuy doxalee ak yéen euh, tey nag ñoo ngi woon fii ci marché Tilène àndoon ak ki nga xamante ni moo di Ramatulaay ñu naan ko aawa buuru këram mu ndugg ak ñun ceeb bu xonk tabarkàlla sama junni bi nga xamante ni mët na junni daal mët na dépense añ ak reer ak ndékki moom laay àndeek jeeg ji di leen gunge di leen ko may nag dépense su añ kese gis gis ngeen li nga xamante ni moom la Ramatulaay wax ci carotte gii nee na day leerali bët ba pare bëri na ay ferñeente léegi nag du ma def rek lu mooy di leen bàyyi euh, ba fee nga xamante ni moo di DTV dinañ leen yokkal ferñeente yi bu baax a baax a baax ngeen teewlu ko nee naa leen DTV rek bu kenn zappe ku zappe rateloo dul dabe fii lay amee sama junni bi sama dépense bi fii lay amee jërëjëf Lalla Aïcha sa junni bi xam naa sakkan na lool waaye ceebu jën bi moom war naa mën a neex ndax nag ndugg mi rafet na fa tabaarakallah kon na fexe rek mu neex ndax junni bi sakkan na caama ceebu jën loox de te xam naa loolu sa mbir la. mu xonq. a ah, tapalaa la de. déggoo bi muy peesee tamaate yi booy safal ko de. war na si boole yebooy tout cas ndugg lu diis na Oustaz Matar Sarr kontaan na fa mu ne. <laughs> Ah, kontaan na kontaan nga caam nga sant. na kontaan na ah, yow nga xamante ni boo añ da ngay raaj. wala dëxin rek ngay raaj yëpp damay raaj raxasu kon mi ngi mais kontaan naa di kontaan aussi ci Lalla ay bu baax a baax. Mhm. nee naa fi mi toll nee naa li Cheikh naa doon wax ñoo ne fi réew mi toll nga dem ci marché nit ñi nit junni. kooku ñoom nañ ñaanal DTV bu baax a baax. Mhm. xaw ma lu mu amoon ci départ waaye junni boobu moom. bu ko junnee bu ko duggeewul sax am na leen lu mën a faj ca kër ga. kon boog kontaan nañu baax a baax mais bu tamaate. ceeb jën baa ngi noonu loo ci waxati. am naa tamaate bi saf na de. suur naa bu ñu séeréer yi ñori su naa su Oustaz Matar Sarr fa mu ne xam naa ne kontaan na. <laughs> jërëjëf may naa ko futur maire mi ngi noonu <laughs> Mame Diarra Bousso. ceeb bi niin na de. lu <coughs> na lu niin de. ku yor doo dajeeg jinne ah. junni. Ah. ku ko yor doo daje jinni kon di daje ay Aïcha kon wóor na de. ay wóor wóor bu baax sax. Ah. xam nga ceeb bi ku ko xool. Hmm. xam na ceeb la de ak a neex weeru koor. nga ni <laughs> ceeb bi heure ndogu neex na weeru de. Ah. ay deux heures xool rek. deux koy commencé xool. day dalal sa gis nga. muy baax jaaru bu sa Aïcha hmm. yow maa sa plat la. waa ceeb bi moom. alab lébu. waaw lébu allah la ay sami itam mm. def na acte boo xamante ne acte de noblesse la acte social la yaa ma gën a xam nañ def nañu bàyyi daal di baxal rek kaani yeex yooyu yëpp daal ah. mbiru jigéen la daal ax ah. ah, leket bi tam xam nga day tax rek jigéen gën a jongama si biir marché non dafa am valeur yu maam yi daan def mu doon gàllaaju jeeg ci biir mm. këram non day valoriser sa personnalité xam nga lii di dox di law moo gën ngay def rek muy nekk si peñe bi wala bu nekk te bàyyi marché yëpp sa jëkkër ak mbuus yi waa kay. luy loolu am na solo mooy yëpp sa jëkkër mbuus yi. mooy yéen marché nee na marché yëpp sa jëkkër. mbuus mbuus yi marché yi mel ni amul ay ndugg ak yow. marché ci àngali mooy ci koñ yi ci àngali. marché yëpp sa jëkkër tey la dem marché ak waa tey la dem ñaareel ñoo koy def nag ma ñaareel ñu dugg aawa yi ñoo koy def. baax na def ah. naa. Mm-hmm. ah ceeb jën sa plat la de. bon man nag xam nga dama koy bàyyee méngéen yi ñu ngeen di xaar yi <laughs> ah. may naa ko ñoom ah, sama waa kër dama sama benn bàjjan boo xam <laughs> ne la sant doom yi sant meng mais may naa ko méngéen yi ci kër googu noonu. Ah, waaye doo kii la moom dañ ciy kii rek. mais man par rapport ak élément bi man dafa am benn affaire bu ma retenir. Mhm. man élément bi bien vrai mais dafa am benn affaire bu ma retenir boo xamante ni tey ñun ci par rapport ak suñu ay aada ak suñu ay cosaan daan na gis tey jigéen buñ ko interpellé ci marché wala dara. Mhm. daal na gis ni man. xaaral ma woo sama jëkkër ma tàggu sama borom kër parce que man yooyu gisatuma ko gisatuma ko ci gis ko ci image yi daw esi encore ah. parce que man dama koy natt sama bopp rek parce que man ma toogoon nisaan ndéegi xaa da jékki-jékki gis sama jabar ci kanamu ci kanamu télé bi dama choqué te xam naa ne moom mhm. bal bi day tàkk yooyu moom xam nga war nañ ci bàyyi xel xale jigéen aussi war nañ jëmmal seen war nañ jëmmal seen borom ko bett la da war nga war ko mm-hmm. mm-hmm. <laughs> si suñu kii national la xam naa da koo arrangé moom na ko ah, jox ko jabar junni ci jamono bu métti bi arrangé mu dem eh. ku xëy ngay def dara war ngaa woote balaa ngay def dara balaa ngay def dara war nga ko wane ko nii ak nangam ak sàngam. boo demee de waaj dina ko ne. dencal bu ma la joxoon léegi du du du ma dugal. ça dépend ci góor ñi rek wala mu jënd ci leneen njoñ ci leneen rek. neexale ko ko jërëjëf am na solo dañoo nekk période seddaay mooy annoncé wu. ndax jamono yi gis ngeen xaw na féex tuuti tàngoor wi wàcc na. te mu am yoo xamante ne rek fay baax lool ci nit. waaw lu mel ni diw yaram dañuy ànd seetaan élément boobu rek pour ñi nga xamante ne dañuy weex wala dañuy didim. ñu xool naka la ñuy def pour mën cee génn ñu ànd ak waa yaram nekk na lu am solo loolu ndax day tax ba cellule épiderme yi bañ a ñàkk ndox ba sa yaram du weex ñu toll ci jamonoy seddaay ñu bëri ci askan wi ñoom dañuy taamu jënd ay diw yoo xam ne xaw na niin. xam nga sedd moom diw yi nii ñooy gën a jar parce que xam nga boor bañ a weex parce que tamit dañuy suyee. Euh, période ay vaseline côté tamit di nga xam ne ay karité ak yooyu ñoo gën a dox ko jamono jii. ngir bañ seen yaram di dim ñu bëri dañuy jëfandikoo lii di karité waaye tey jii gis nañ ni que tendance bi mooy huile essentielle yi. bu seddaay ñëwee damay utiliser huile huile d'amande wala huile d'argan def ko sama diw su may tëdd aussi jël huile de baobab hydraté sama peau ba mu nooy ma tëdd dina tax sa sa sa peau yi ni waxee ay écailles lay def moom vraiment du ko def sa yaram dina liis. li nga garder sa teint naturel. gerte bi xam nga li mu xaw a xeeñ noonu moo tax ça me dérange un peu daal surtout que soo marié woo aussi am na góor ñoo xamante ne porté wuñ ko. huile coco amande carotte yenn ci yu mel noonu bëri na loolu ci marché bi am na petit bu yaram bu nekk ndax si dool yi ñëpp mën nañ cee jot. huile tamit dafa am différence par rapport ak karité yi. am na huile yoo xamante ne nin na pour dañ koy def si diw. période bi moom day jar moom période bi moom macha allah day jar bu baax. huile dañoo bëri façon am na huile yoo xam ne dañuy leeral am na huile yoo xam ne du leeral am na yoo xam ne pour bopp la am na yoo xam ne pour yaram la huile yi noonu la kii comme ay huile carotte argan karité ainsi de suite. donc seerul sans dépenser huile yi am na huile yoo xam ne lu gën a yomb 1000 francs mais tamit noonu mën a dem ba varié ba 5000 jëm kaw am na ñoo xam ne tamit mélange lañ préfère dañu naan mélange ñu dem jënd ay mélange 25000 ainsi de suite. seddaay bi day wowal suñu yaram di ko yàq moo tax faw ñu am soin yu baax yoo xam ne dañ koy def bés bu nekk crème wala lait pour suñu yaram crème pour tànk jaarale ko ci loxo yi diw suñu yaram doon na lu njëkk lu ñuy def saay suñu yeewoo ngir mën a am yaram bu nooy te sell te muy dëgg nag yaram dafa war a nooy dafa war a sell seddaay baa ngi ñëw nuyu na nañ ko wax bisimila mu egsi ñu koy waxee bisimila nag mooy euh, fagaru ndax olof nee na fagaru moo gën faju diw yaa ngi fi am na diw yu baax yoo xamante ni cher na waaye am na diw yoo xamante ni cherul te baax dellu cosaan rek def li nga xamante ni moom mooy base bi mu doon karité comme ni ñu koy waxee ndax mag ñi bokkoon na ci li leen di muccal euh, ci xar-xaru tànk yi waaye ak ci ñagas-ñagasu yaram yi kon am na fi huile comme ni mu ko yu baax yoo xamante ni euh, baax na ci yaram am na yit ay crème yoo xamante ni pour sa loxo la bañ a wow ndax am na ci ñoo xamante ni seen loxo yi bu ñu weyee seen weye day fett mm. am na it tànk yoo xamante ni moom it day fet yooyu am na ay diw yu baax yoo xamante ni boo ko ci diwee euh, daanaka sa tànk day fett euh, dootul fet bu fekkoon sa tànk day fet dootul fet am na diw yoo xamante ni it booy tëdd nga koy def bu dee tànk bi nga sol say kawas bu ko defee boo xëyee daal boo raxasee sa tànk day nooy nepp lu tax ban ah caama. Hmm. xam nga ci dara. man de ngi ci quartier gi rek. waaw ak am solo. man ngi ci man bu man yi du hmm. man maa ci man lépp maa ci démb man maa ci quartier bi ñëw wala net xam nga net. am solo net. Hmm. moom laay def 300 par bi di jar. net mi ngi am ba léegi. waaw Sandaga laa koy jënde <laughs> man li man xaw man ci net rek. sama quartier ba ko ba ay doomu lima ba ci frigo ba ñu ñëpp ci lañu papa yaay ak doom ñëpp ci lañu diw discothèque mën naa tëj ay sa gëm nga loolu sa <laughs> de loolu fa la gën tey nee na nag man nag moom yàgg gëj naa koo dégg daf may faj day xool thérapie yu baax muy xëy di ñu ko man dama ko gëj a dégg da net ah. net ak ak kii am na beneen huile mu daan àndal dama fàtte tur dina ñëw xëy na voluti hmm? net sama hmm. yaram voluti sama kanam nangul nga ko loolu ah nangu naa ko gisoo ko ni mu def nii tàkkaale nii macha allah. <laughs> Eh, def felfelaaleem si muso. Ah. waaw. moom rek ci jeex felfelaale ko ci felfelaale. ba fàtte ne Seydanga la. felfelaale waaw Seydanga woon ñu fër. felfelaale. lan ngay joo. kon man. Ah. dëgg Zéhir laa jiwoo. ah ah yaa koy kii de ah kon benn diwul bu baax la. waaw dëgg séeréer kon looy digal sa morom yi nga xamante ni seddaay baa ngi leen di ah seddaay ah. baa ngi ñëw man daal soin bi njëkk si soin yi mooy xamal li sa peau di laaj xamal sa bopp balaa kenn naan laan jëlal li nga diwoo ko man xam nga la laay bañ kii diwoo ne lii rek ne xaar ah, mm-hmm. jig na ko nga dem def ko quoi nit ku nekk defal sa bopp ba nga xam ne dañ naan laan ça te va moo gën ñu naan laan rafet na quoi man noonu laa ko gisee kon borom teint noir yi daal nañu xool lu méngoog seen teint waaw xam nga teint noir yi moom bu ñu bëggee mel ni yow non <laughs> rafet na jaara bu so <laughs> euh, dégg naa ñu ne xees xees yëgul ñuul waaye ñuul it yëgul xees. kii xeesul de moom puune la. moo tax moo tax mu neex. Ah. waaw moom xeesul de. moo tax mu neex bi non non xam nga xam nga moom dafa spécial. Hmm. yow sa ah, certain en tant que xam nga euh, am na. am na produit yoo xamante ne albinos yi moom la ñuy préféré. Hmm. yow sa sa teint bi dafa set macha allah. waa day du naa xeesal laf set. bu nga xeesal. <laughs> déedéet da nga daan doon xees. day xeesal di kii. loo xam ne kii daan naa xeesal. dégg nga ndax di ngeen yëg seddaay bu métti bi ñuy yëg ñun. waaw ñun ni ñuy yëgee tàngaay. Mhm. noonu la ñuy yëgee seddaay. dafay métti suñu da ngay gis euh, boo toppatoo sa yaram da ngay am ay comme ni ngeen ko waxee ay tànk yu xar. day wow ay yaram bu wow. ay mhm. wee yi ay tuñ mhm. yi fett. moo tax ñun diw yi duñ koy faral di utiliser man boog. personnellement mosuma jënd diw yi. man dama diw spécial boo xam ne. moom laay diwoo. ba pare man damay utiliser karité lu bëri mais du karité yii nii man sama karité bi may utiliser kéedugu lay jógee. mooy bi ñu travail wala brut bi. mooy kéedu bi bi jógee directement ci garab garab gi waaw boobu laay utiliser. Mm-hmm. Mm-hmm. te mu ngi koy nag moo ëpp mais diw moom. dëgg yàlla aw ma ci benn notion mosuma du ma ko laal sax. Mm. dama am sama diw spécial boo xam ne. yaa koy defar wala da nga koy jënd moo mm-hmm. koy jënd. mbaa cherul. cher na mu am. waaw parce que <laughs> waaye da koy jar. waaw li setal teint bi moom. cher trop du lu yomb waaw. mais moo moo boo xoolee mooy tane parce que boo xoolee eh, li ngay diwoo ci tàngaay bi mhm. waruloo ko diwoo ci seddaay bi mhm. parce que bu seddaay bu ñëwee degré tàngaay bi mhm. dafay dafay dafay dafay dafay wàññeeku degré tàngaay bi ni muy wàññeeku noonu ngay utee diw boo xam ne dafay mooy dafay dafay dafay tolloo ak degré tàngaay bi mais albinos yu bëri xamuñu ko ñoom dañuy jël benn diw rek di ko utiliser te loolu euh, boo demee ci dermatologue sax daf koy daf koy daf koy tere kon daal diw bi setal sa teint ku ko bëgg ku ne rek na la laaj. <laughs> waaw te gis naa ne macha a bàyyi xeesal a macha bàyyi jàmbur bàyyi jàmbur. ceexu naa sa secret. man man de man aw ma. ci seddaay bi moom moom xam naa ne moom diw moom bañ naa sax du ko jënd. damay ah. yeew rek man diw la ba sa yaram bi nekk bon moom su dee diw man li ma jënd lu ma fa fekk daal loolu laay diw su ma ñëwee fekk fa lii moom lañ ma jëndal comme diw ma diw. fex naa bul sàcc film nag yow dañ lay diw yow dañ lay diw man aw ma problème boobu noonu problème mu diw man léeg-léeg mën naa génn sax du ma diw. Hmm. waaw aw ma problème boobu noonu. par rapport ak ay diw ak yooyu noonu moom. mais nag parfois nga daje sa mbokku góor yoo xamante ne dañuy wax xam nga xam nga xam nga dafay dépendre ci peau nit ñi am na ñoo hmm. xamante ni dañu am peau grasse ñu gaaw a duñu duñu weex ak genre demee parce que foo leen fekk seen yaram mu ngi niin ñu hmm. ngi kii duñu diw ça dépend ci nit ñi tay mom wax na par rapport ak élément bi xam nga élément bi so gisee dafa dem ci benn cosmétique mu dem jënd ji mu wax ay diw so xolé majeure partie diw yi nga xamantene mom ne moom moo fi majeure partie nga tay ay diw xéssal wol huile yi nga xamantene ay ñu utiliser xéssal mais tay comme euh euh ay mu wax am na yeneen diw yo xamantene ci pharmacie lay jaay ay Dexeril ay Ducrey ay yoy et de suite bëri diw yi bëri na yo xamantene tay tey am na ñoo xamante peut-être que parce que xam nga diw li ngay def sa yaram yaram li ngay entretenir sa biir noonu ngay entretenir sa yaram tey am na ñu bëri ñoo xam te ne ñu ngi am yenn feebari seen yaram yi ay ndoxu cité ay cancer de la peau yooyu fekk na diw ñuy diwa moom moo ko indi hmm. peau dañ koy entretenir li koy entretenir nag aussi bokk na ci hmm. nga jël booy diw sa yaram aussi nga fekk nga koy diw ci lu set parce que tey application bi bu ñu la boo koy def fu set yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne dafay entretenir der bi mooy que tey balaa ngay diw nag ngay entretenir foo sangu beeg yooyu noonu yëpp bañ nga xamante amuñu moyen aussi pour jënd yooyu nga xamante ne koy jaay ci pharmacie mbaa di jaay ci cosmétique wax na fi wax mhm. tey tey diw yooyu noonu man sama rappel très bien. xam nga xam nga caama moom boo xoolee sax bu la xoolee lay diw xam daf lay nax. xoolal non mais xam nga xam nga diw yooyu bu fekkee bu fekkee amul net am na fi yeneen xamante ni mi ngi fi te seerul. gis nga ko gis nga tey bàcce ci limon di ko def ak ndox ba xet bi dem. man daan naa bu njëkk mag yi daan jël karité di ko di def glace muy weex di weex di weex di wax ba xet bi ba xet bi dañ yooyu noonu yëpp amoon na yëpp c'est des choses yoo xam ne am na mm-hmm. mais tey xam nga lan mooy suñu problème mm-hmm. suñu problème majeur mooy que tey diw yi nga xamante matière yi nga xamante moom lañ am mm. mooy ba tey li ni problème industrialisation dafay dugg ba tey ba léegi parce que ñun am na ñu ko mettre exploité lu mel ni buy waaw mais la majeure soo xoolee bëri duñ ko muy def ay grain mhm. da gis muy am ay xet yoo xam ne boo ko dencee benn instant moom yenn xet ak yooyu noonu am nañ suñu gommage bopp aussi yooyu dafay joué tey produit yi ñu am lañ war a mettre en mhm. moo gën que tey parce que soo xoolee tey produit yi nga xam te ne mooy dugg leena bouteille yi dugg Sénégal yëpp li muy li muy li muy li muy li muy li muy génne ci ay devises dem ci yeneen dëkk mhm. tey su fekkoon ne tey amoon nañ ay diw yoo xamante ne ce sont des produits à base locale mhm. tey xaalis boobu noonu yëpp devise boobu si dëkk bi lay des non am na peut-être gëstu bi moo des xam nga ñoom maam xamuñu woon cosmétique xamuñu woon yi ñu xam ne waaw dama ne am na mais dama ne tey bu ñu koy yaataloon gën ko gën ko gën ko raffiné gën ko defar xam nga gis nga tey Mm-hmm. ñu xam nga lan ban problème lañ am si suñu ay suñu ay mbir yu ñuy defar mm-hmm. problème mu raffinage lañ am maanaam mu raffiné ba nit ko gis daal mm-hmm. di raffiné sax gis daal di nga ko gis xam nga ay diw yoo xamante ni tey fii dañ koy defaree fii à base de ci pot yi koy def da jékki-jékki diw bi commencé di laal ay kii yu vert parce lan que emballage bi emballage bi baaxul yooyu noonu c'est des choses yoo xam dañ ko war a xoolaat. defaraat ko de telle sorte que tey Sénégal di ko mën a. surtout ñu moytu plastique bi aussi mm-hmm. dafa bëri ay mm-hmm. inconvénients ci day am njeexital ci lekk bi am mm-hmm. njeexital ci yaram bi nañ koy moytu. gis nga démb comme ni ma ko waxee maam amul woon euh, comme ni ñu ko waxee huile yi nga xamante ne moom la maam amul woon saabu yi nga xamante ne moo fi nekk ci produit local yi ci la doon jël moo taxoon teyam di baax dundam di baax lekkam di baax d'ailleurs sax muy gudd fan ndax dañ naan euh, hygiène bi bu sa biir setee sa lekk set sa naan set rek sa xel tranquille mën ngaa gudd fan te li ñu xamul nag mooy li fi gën a bëri fii Afrique lay jóge mais suñu produit local yi. Euh, suñu produit local yi benn danger daf ci nekk. Mhm. tout le temps man dama koy faral doon mooy que tey gis nga tey si norme international yi. Mhm. foo dem ci àdduna boo ubbee benn jële benn produit. produit war nañ la composition bi lan la. parce que ñun carte yi ñuy jël duñu ko jaay di ko transport duñu ko jaay ñun ba léegi xamuñ lan lañ ci yokk na am ci ginnaaw parce que tey koy gis parce que mm-hmm. diw yi da gis ni que amul benn composition amul lenn lu wane ci ginnaaw que lii lañ ko defaree carité ak lan bu jëlee ak ah, carotte parfois da ngay gis ñu ne ci ay avocat lañ ci defar ay avocat am na yeneen produit chimique yu ci bokk yoo xamante ne mm. tey léeg na am jeexital ci yaramu bi moo tax tey emballa si paquetage il faut que yooyu yëpp ñu ko ciy def euh, am na yenn euh, ci biir kii mm-hmm. ci GIE yooyu ñoom dañuy def seen étiquette bind li moom moo nekk ci biir produit mais mm-hmm. bëreegul waaw loo gis nag xam naa tàmbali la rek comme ñun bokkul woon ci suñu kii ñun sénégalais dañoo tàmbali waaw mu lor ay nit foog bës ñu jël diw am ay nit utiliser ko mu yàq seen yaram wala mu indi ay complications <laughs> sénégalais yi a jël jàmm moo ko xamee léegi am na solo moo ko xamee léegi mm-hmm. wax jàmm leen daal laa ah, xam mooy carité prévoir yii nii mm-hmm. c'est des choses yoo xam trop mais boo yoree sa carité te loolu du ci carité da ngay yoo xam ne xamoo composition bi lan la te loolu mm-hmm. yëpp dëkk yëpp dañ mm-hmm. koy jaay benn affaire rek mu koy diw nee diw baax na ko yaram bi commencé def ay putantaan wala biir ah. hmm. mu boo xamee li daf da nga ko allergique nga bàyyi ko bul jël aussi lu ñëw rek nga jël ko fi sénégalais moom loolu moo ñu yàq euh, Aïcha ngi diw am na teint rek teint bi baax na ma dem jënd li Aïcha di diw diw ko fekk lii Aïcha du man wala jaara maam jaara mi ngi diw li muy diw baax na gis naa ko am na coppite ci moom rek ma dem toppandoo ko te fekk maak maam jaara suñu tipp de peau yi bokkul mhm. ku nekk da ngay fexe jàmm jàng sa yaram boo jàngee sa yaram ba xam ko rek dara lu la jaaxal. Mhm. dañuy ñëw ànd ak mbokk yi comme niñ ko defee woon dugg ci ñetteelu wala ñeenteelu ay bisam. Mhm. xam ngeen ñu ngi yëkkati woon thème bu yaatu indi nañ ko ci façon yëpp nag pour bëgg rek mbokk yi jëriñoo. ni ñu ko njëkkee indi fa tabaarakallaa ñëpp rafetlu nañ ko ak boo fi mu toll nii. du ñuy def rek lu dul dem dellusiwaat bu ñëwee tegaat suñu tànk fi ñu ko tegoon ngir jariñ li rot. jërëjëf mi ngi noonu njariñ lii mi ngi ci li nga xamante ne moom mooy tënk bu kenn ku nekk gis ci boppam wala kenn ku nekk sentir ci boppam ndax li ñu yëkkati di ko waxtaane muy jikko yu yàqu yi nekk léegi ci jamono bi rek rawatina ci ndaw ñi ndax gis nañu euh, jamono bi fi mu toll nii euh, jeunesse bi am na ci ñoo xamante ni dañu réer te géndi leen dafay xaw a jafe ndax dañu ànd ak dëgër bopp mm-hmm. am na ci ñoo xamante ni sax ñu ngi ci buntu maanaam jéem a mucc waaw ñu ngi fexe nu ñu muccee ndax gis nañu koo xamante ne doy na leen ba ñu ngi jokk ci moom mooy may waxee mooy euh, kenn ku si nekk gis nga danga naan kii danaan la kii sama sëriñ la wala kee sama sëriñ la mbaax rekk la ñuy wër ndax yaakaar moo foor kon yaakaar boobu xale yi am ba am ci ñenn ñoo xamante ni ñuy jóg ñu ngi jóg wuti diine ji yàlla na yàlla dëgëral leen ndax nag mooy dëgg moom mooy li nga xamante ni kenn du ko faxas ba mu rot waaye ñi nga xamante dañoo xëccu dem c geneen wet gi topp xew-xew waaye topp jéggaani li nga xamante ni moomu ñu ko nasaraan lu mel ni euh, yenn yi nga xamante ñu ngi koy def keroog ñu ngi ciy dugg mu yor jikko boo xamante ni méngawul ak suñu jikko waaye méngawul ak li nga xamante ni moom lañ fi woon démb ak barki démb muy am fit muy am sañ-sañ jigéen dem ba toog di nga ba sigaretam wala góor dem ba taxaw euh, fëgg dënnam di jaay boppam wala góor goo xamante ni day dem ba day ñàkk yar ñàkk yar goo xamante ni day taxaw ci di gaanuwaay di def naka su dul noonu walla mu dem euh, ba mu nekk xale boo xamante ni dafay doog a jóg dugg ci buntu àdduna wow bët ba yaakaar ni ki nga xamante ni da koy jàngal war na koo mën a charmer ainsi de suite yooyu nga xamante ni moo topp gone yi ba tax ñu ferteerlu nekk ci loo xamante ni koo wax mu ne mënuma koo yar koo wax mu ne dama tële koo wax mu ne euh, valeur yi yàqu na koo wax mu ne jikko yi yàqu na euh, autorité amatul kenn ragalatul kenn kenn faaletul kenn moo tax ñu indi ko fas yéene ko waxtaane seet kenn ku ci nekk li ci sa wàll nga jël ko ndax nag euh, responsabilité partage la am nga ci am naa ci kenn ku nekk am na ci cheikhu naa mhm. dañuy ñëw xool naka lañuy ñuy def pour mën a delloosiwaat suñu njaboot gi ba ñu doon ay référence doon ay ndaw yoo xamante ne dañuy rey ci ñoom mhm. ndax fi mu toll nii xale yi dëgër nañ bopp am nañu fit ñeme nañu waaye seetaan nañu dem mhm. ana naka nga ko sentiré nu ñu koy damay waxaat onze bi laa xam ne xam nga kontaanaat ci di àdduwaat ci thème bi par rapport ak euh, euh, perte de valeur mais xam nga nit ki balaa ngay ñàkk daal da koy am. Mm-hmm. wala li nga xam ngay ñàkk loo xamul rek amoo ko. te est-ce que jeunesse bi xam nañ lan mooy seen valeur ba pare est-ce que mës nañ ko am ba di ko ñàkk. xam nga tey ñun Sénégal damay faral dox ma ne ñun chaque jour dañuy jiiñaate mais duñ ibbi suñu ay bët xool ñi ñuy jiiñ ak ñoom ku tane. xam nga ñun saa yoo toogee rek da ngay ñun dañuy am habitude di ŋàññi tubaab yi di ŋàññi extérieur ñun tubaab yi ñooñu gën jikko. ñooñu gën jikko ñooñu gën jikko. kon de sàggan ñu gën leen diine. xam nga jikko. mbir la tey tubaab yi ku ci tuub gën. kon de suñu diine réew dama la bëgg comme li ma la bëgg wax ne tey bu toon diine bi ñu am bi ñu différencier ñun ak ñoom. Mhm. ñu gën jikko am nañ ay valeurs yoo xamante ne tey ñun amuñu ko. ba tey valeurs yooyu noonu dafay law di nekk jeexital ci seen ay société am nañ ay valeur yu bon mais am nañ ay valeur yu baax yoo xamante ne tey moo jox la exemple tey ñun ci suñu ay valeur fii Sénégal la majeure partie des Sénégal dañuy guerre dañuy corrompre. guerre waaw ñii dañ leen di guerre. da ngay gis chauffeur boo xam ne c'est pas grave police benn kii da koy arrêté mu jox ko téeméer wala 1000 francs les Sénégalais le font chaque jour. pour tëj sa gémmiñ dañ koy def da ngay dem dugg fenn di lijjanti benn kii jox fa 1000 francs wala 2000 parce que jikko yee parce que Djiko yi dafa nekk ci ñun suñu jikko la c'est nous Et pourtant guerre bobu non yar la wax na ci ay sar alcorane ay yoon yoon ci ñuy guerre ak ñi ñuy guerre. ñuy gëraate. est-ce que noonu la. Mm-hmm. ban diine la. suñu diine ban ban loolu suñu diine moo ko indi. Mm-hmm. mais est-ce que ñun dëppoo nañ ak loolu. est-ce que valeur yooyu ñun am nañ ko amuñu ko. ay tubaab du ko def. maanaam bu ma la déggee est-ce que ñun suñu jikko méngoo na ak suñu diine. non dama xam nga perte valeur dama nekk ne valeur yooyu noonu mhm. amuñu ko sax ba di ko revendiquer maanaam. si ah, xam nga lu tax ma la xam nga xam nga non wuy ma non attends xam nga balaa ngay am koy làmb ci population bi xam nga tey waxtaanaa mhm. suñu waxtaan bu ñu bëggee mu faju il mhm. faut que ñu wax la problème ñu di ko tudd li may bañ mooy nga ne amuñu ko non su ma nee amuñu ko xam nga tey su benn mbir la majorité l'emporte dama ne boo laajee nga def micro trottoir nga laaj ak sa aqulaay taala sénégalais bu nekk wax ci bàmmeelam nekk ni ndax musul dem fenn di lijjanti kii jox fa 1000 francs wala 200 xaar soo ko làmbee nga daj ko nga def kii kenn ku nekk waxal traayelu bàmmeel la majeure partie des sénégalais boo ko doon def tey di nga jàpp 60 wala 70 pour cent yoo xam ne def nañ ko mm. kon amuñu ko si la majorité l'emporte gañ amuñu ko balance balance dañ ko mën a te loolu la kii boo ko taxawee nii gis ko à lay nu boo taxaw si boo taxaw rek da nga koy gis c'est flagrant. Mhm. et personne n'en parle. Mhm. bu njëkk su ma nee tey amatuñ ko bu njëkk da nga daan gis mag am doom mu def concours yenn kii exemple comme exemple bu ndaw douane. Mhm. sa papa ne loo defi douane amoon na. parce que am na peut-être. parce que am nañ benn gis-gis ñu ci am gis-gis bu buñ ci amoon. mais tey xoolal concours douane bu ñu nee tag concours douane. ñëpp waxuñu ko waxuñu ko pour ŋàññi leen. non pas pour cest à dégg-dégg bi woon. ak léegi moo wute te li ciy dugal nit ñi bu njëkk ñu ngi ci doon daw peut-être mu lekk lu lewul riba mm. ak yooyu. foofu la mag ñi daan gisee mais taxul aussi métier bi euh, tilim. non je dis pas que métier bi tilim métier boo gis am na ñu baax am na ñu bon. mais dama ne tey fi ñu toll ci suñu mais lépp loo gis da nga koy natt ci société bi. Mm-hmm. xam nga ñu lan mooy suñ problème ñun Sénégalais. Mm-hmm. ñun dañoo mën a sang suñu bopp. Mm-hmm. dañu mën a defar suñu bopp suñu bopp yu bëri yoo xam te ne newul ci xam nga tey première chose pour que tey jeunesse am ay valeur hmm. jeunesse bi dafay am ay référence yoo xamante ni tey ma jox la benn exemple est-ce que tey xalaat nga ni tey ci suñu ay valeurs ñun Sénégal valeur républicaine yooyu noonu tey président de la République bu wàcc ñu koy topp parce que dañ la may 7 milliards nga la warul may du mës a am Sénégal wala 8 milliards tey en France gis nañ fi ay président yoo xam ne wàcc nañ ci ba ñuy nekk maire nit mayal leen xaalis wala nit doxal leen xaalis ñu nekk président wàcc président ba ñu leen di topp xaalis boobu ne la au nom de quoi lan la la kooku war a mayee xaalis waru la ko may parce que seen ay valeur moo leen mayul que ne tey yow nga toog fii ci chaise bi di la may xaalis ndax chaise bi nga di ko nangu seen ay valeur la te loolu mu ngi ci ñoom newu ci ñun tey boo duggee ci post yu bëri muy journaliste yi muy présentateurs yi muy muy feneen ak feneen les sénégalais sont comme ça waaw d'une part xëy na li ko indi mooy. waaw ci man euh, bëgge bi bëgge bi. non li mu wax ni euh, ñàkk say def lu mu bëggul. c'est une réalité boo xam ne def ko nekk. <laughs> mais aussi am na ñoo xamante ne amuñu demee dañ doy la de. am na mais soxla luñu kenn dara amul de xam nga euh, wax ni amul. dëgg mooy que. damay fooye sama xel. toll ma fu may fooye sama xel ma. am na. loolu am na ay nit yu baax. ay nit ay personne de valeur yu fi nekk. yaa ngi ko naan tey ma jox la benn exemple. tey soo toogee ba ay imam di la wax ni que wala ay nit di la wax ni que tey exemple bu ndaw ah exemple bu ndaw. ñu la tey que ni miraas yu bëri ñu koy def ñoom ñoo koy tas ndax lan ay nit yu ñuy corrompre ci suuf. ay imam bu wax dëgg yàlla dëgg naa sax. tey nga gis dama la bëgg comprendre loolu sérieux bi leneen loolu lu koy indi. li tax dëkk yu bëri raw ñu ci loolu. mooy dëkk yooyu noonu jeunesse bi dañ leen jox ay références. xoolal tey Sénégal ah. majeure partie des jeunes suñuy référé wu wala sax suñuy wax ay proverbe wala ñu def ba ay référence dañ lay jënd ay Karl Marx indi la ay nit indi la ay ay ay Martin Luther King indi la ay Malcolm X waaw mais parce que xamul tax parce que tegalu leen dara si seen kanam parce que te la nature a horreur des vides. Mm-hmm. tey jeune olof dafay lépp naan lu dagg rek. Mm-hmm. moroom ma lay fekk. jeune ci jeune si jeune la mën a gis boppam jeune ci jeune la mën a référé wu. tey pourquoi pas sëñ Touba mi am 18 ans tey jeunes yu bëri mën ñu wax sëñ Touba mi am 18 ans 18 ans sëñ Touba lu ñu def ci seen si sëñ Touba ba muy dem géej ba te pourtant sëñ Touba jékki-jékkiwul rek dem géej jékki-jékkiwul rek am na 15 ans tey Sénégal ba pare tey je te donne un exemple américain yi. ba jox la exemple ah, américain yi amuñu ay référence amuñu ay symbole comme tey ñu ñu amee ay sëñ Touba amuñu ko mais bañ demee ba nga xam ne amuñu loolu ñu comprendre ne amuñu ko te war nañ jox seen ay jeunesse ay modèle lan lañ def dañu créer ay Batman créer ay superman créer ay héros créer ay zéro ay héros yo xam ne ay jeune lañ mais di xex lu baax di def lu baax di wone ci dessin animé ak film yi que ni ki ben nit la bo xamanteni day def lu baax tey mu jëm day baax nang sa di lañ jox ay référence xale bi di référé wu ci ci ci figure yooyu nonu di def lu baax di fi mais tey soo kontaan tey suñu figure yooyu nonu tay ay la Dior tay Sénégal jeune yu bëri xamuñu ni tay que ni la Dior premier xarem tay mu ko defé à l'âge de 16 ans la commencé bañé mais loolu Cheikhouna c'est la faute à qui ñaar gis nga tay

jërëjëf relais la. xam éducation te relais boobu noonu bu njëkk dafa amoon. Mhm. mais tey relais boobu noonu tey dafa am benn pont boo xam ne dafa dagg ci diggante kër gi ak société bi tey bu njëkk ni dañ am doom. xam bu ñu ñëwaatee di nga ma développé foofu diggante relais bi mm. entre euh, société bi ak kër gi. Mm. Euh, mam Diarra dafa wax lu am solo mais bu ma seetloo wax ji li ci gën a bëri mi ngi koy jëmale ci xale bi nga xamante ni dañ ko war a won ci benn buntu ne ko fii ngay jaar. buntu bi boo demee ba egg di nga fa fekk loo xamante ni sa njariñ lay doon référence boobu nga xamante ne moom la jàpp ne buñ ko wanee xale bi dina génn ci li mu nekk tey lu njëkk li mooy man sa bàyyi laa du ma lekk alal ju lewul kenn du ma mbuxum du ma dugg ci dil comme niñ koy waxee du ma def euh, yu sew sewaan yooyu nga xamante ni ku la ci fekk ku ne ne la acam parce que am na fi yoo xamante ni soo xamee ni ñuy dundee mbaa ni ñu yóbboo dépense seen kër da nga leen di tax jéppi boobu nga xamante moom la ñu woon xale yi war a woon xale yi est-ce que yow ànd nga ci Euh, jërëjëf maman euh, référence boobu ñu war woon xale yi ñan ñoo leen ko war a woon. surtout. foofu point d'interrogation bu ngand la. ñan ñoo war woon référence xale yi ndax nag xale mooy màgg te lim gis loolu lay copier te moom lay màggaale. Euh, man pour man amatuñu référence. Hmm? ndaxte gis nga boo boo tey Serigne Touba wala maam Alaaji Maalik bu ñu fi nga leen Sénégal bi ngeen fi bàyyoon moo nekk nii. Hmm. duñ la gëm. est-ce que duñ la gëm parce que ñun mag yi njëkk yi dañ daan yar yar bu baax mais léegi ñun mënatuñu yar parce que yow tey maman tey da ngay gis sa doom nga ne ko. doo ko mën a wax sa bul sol tubéy parce que yow yaa ngi ko dangal ba mu dang hmm. ak sa bu baax hmm. def sa périg sa greffage bu baax mënoo ne bul sol Euh, ñi doon yar ñi ñun mënuñu yar parce que ñun talatuñ ko sax talatuñu yar suñu doom yi ndax gis ngeen dëkk bi léegi dafa metti da ngay xëy sa jëkkër liggéey nga liggéey xale bi fan lay référé woo loolu taal teleem wala dugg si net bi wala jël portable ci loolu lañuy ñuy dañuy référé woo beneen bi li ñuy tàmm jox naan ah man de xale bii mënoo lu ma ko dara Mama, doom sa yo ko jure tablette rek mu kal ko ci youtube sa yo ko jure ne mënulu ma ko dara mbedd ca mbedd ma lay dem la te mbedd mi du ye du fuñu yare xalé la place de l'enfant, enfant n'est pas dans la rue mm-hmm. gis nga xalé dafa soxla ben éducation bo xamné nday ak bay ñoo ko war jox mm-hmm. nday ak bay mais légui nday ak bay yi amatuñ sen jot mm-hmm. boolu añu kay la kenn bokatu ko ay plan lañuy def ku ñew dugg si dem ci frigo bi tangal ñew lek dem sa yoon mais lool du yar tant que changé wuñ njariñ bi mm. euh, pour xale yi référé wu dina metti trop changé njariñ bi mooy bàyyi liggéey bi toog ci kër gi uuf njaboot gi mm-hmm. wala bàyyi liggéey bi mm-hmm. loolu day xaw moom mooy mooy foofu nag la problème bi ne voilà merci bàyyi liggéey bi mm. foofu la problème bi ne ndax tey gis nga maman mm. tey ay dañuy dégg droit droit droit mais droit dafa am fu mu fu mu fu yem mais ñun dañuy jël droit pousse ko ba mu sës ñun daal dañuy jàpp ne lii droit la na ci dem ba egg te liggéey ci jigen bu njëkk nekkul won droit. Mhm. dañu daan tak mur la wajal la nak wajal parce que jigen dañ ko wara wajal goor dañ ko wara wajal man biñ may may bi ñëwee ci jàkk yi bi ñëwee ci jàkk yi sama pal dafa ne duma maye tank sama jëkkër ñëwul c'est ça ku ñëw wax ak mom li ñi wax mu dégg ko nekkul rek lañuy wajal mhm. mais ñaan xalé bu muñal dénga bo démé na nga muñ du lolou préparation ci ba muy xale la parce que day màgg tey da am benn affaire sa ñëw laaj ko sa yaay bu la pesee te ya te moom nga ko war a laaj mais duñu duñ préparé jigéen ci sëy kon ñu ubbi ouverture entre parents ak waajuram mu am complicité surtout may leen bu jigéen mu am complicité ak waajuram bu jigéen ñu may leen nopp mais waajur yu jigéen ñi sax ñun talatuñ ko moment bu ñu wàccee fii ñu ngay daw oto yi kërën kërën yi ñu daw tëddi Ah, dafa am sax suñu doom dafa am lu am solo loo sànq nit ki loo amul mënoo koo joxe. mënoo ko joxe parce que nag boo yarul mënoo yar kenn. Mm, mënoo ko joxe waaw boo yarul mënoo yar kenn de. loolu moom c'est une pure vérité. Mm-hmm. mais man je me suis dit que il faut ñu introser li nga xamante ne mooy ñàkk yar bi. Mm-hmm. c'est un mal mal compris. Mm-hmm. mal bi kenn xamul lan la mais dama bëgg tey kii di yar mu nekk horloger bi mais man doom bi na nek li nga xamantene moy montre bi mhm. buñu xolé qu'on a dafa wax sànq ben affaire bu am importance mhm. Mhm. mu mam borom Touba bi muy am 18 ans fan la jaar waaw mais pour me comprendre lolu, il faut xalé bi li nga xamantene mom moy xol bi fay nek seconde yi xel bi nek li nga xamantene moy minute yi heure bi fay nek li nga xamantene mom moy mooy nit da ngay nité il faut avoir un but dans la vie trouver son maître boo trouver sa maître da ngay dem si benn source de revenu mu yóbbu la ci benn espace bi nga xamante ne dañu nekk mu nekk environnement bi. trouver sa maître moom noo ko déggee noonu. trouver sa maître maître du loo xamante ne rek day nekk sa école ba di la jàngal. parce que yàlla def ne summa am waalukum wa awlaadukum fitnatu nit ki topp na doom ax alal ba nekk ci fitna te ñun bu ñu xoolee fi ñu tollu société bi dañu dem ba egg si stade boobu noonu. nga ki nga xamante ne dafa am benn but dafa am objectif boo xamante ne daf ko war a finir définition boo xamante ne daf koy am lay teg moom moom lan mooy définition wam dafay nekk li nga xamante ne moom mooy sutura te sutura bi nga xamante ne moom lay nekk dafay nekk tailleur bi nga xamante ne dafay ñaw dafay ñaw mbubu kers defar jikkoom ñaw mbubu jombale defar jikkoom maman ki nga xamante ne dafa solu ñu ne la yow ça te va. Mm-hmm. ak ki nga xamante ne dafa solu ñu ne la rafet na bokkul mais ki nga xamante ne dafa sol ñu ne ñu ne ko lii ça te va. Mm-hmm. dafa valoriser personnalité ki nga xamante ne dafay valoriser personnalité am du kenn mooy ki nga xamante ne bu toogee ci kër gi am na nu muy taxawe bu nit di ñaan naan sax bit ah daama naa nañu yàlla may taxawaay bu dëgër dafay dellu ci imaan nga mm-hmm. lan mooy imaan ndax ñun da juddu rek ñu ne la maa ngi ko doon wax fii bee paase doomu jullit da ngay mais waajaluñu ñu doomu jullit nan ngay jullee pour baax ki nga xamante ne dafa laaj dafa ne allahu akbar dafa ñaan audience kan la ñaan euh, audience borom bi lay ñaan audience pour wax moom mais Macky Sall tey ku mu fi joxoon audience tey da ngay xeeñ parfum yu baax am noo mel am noo taxawee. Mhm. boo taxawoon doon sëgg nii sax déedéet te ot ngay def. parce que Macky Sall monsieur le président ngay seeti. balaa monsieur le président nan ngay toogee il faut comportement taxaw nous ñun li ñu gëmloo ci c'est yi mooy satisfaire sa je dis souvent non l'amour c'est une question de comportement mais pas une question de satisfaire qui que ce soit. mais mais satisfaction C'est day non satisfait xam nga ki nga xam laay maxtaar laay maxtaar wax day sol tubéy teg ko mu leer waaw satisfaire bu ñu bu bu ñu koy wax bo da ngay fexe combler besoin yépp mooy ci ci ci teg gi teggin bi mhm. Cheikh naa mi ngi koy wax sax ami teggin xam nay wax ak sa kilifa mhm. sa borom kër sang la no bu ñëwee naka nga koy teeroo naka nga koy tatagal yu sew sewaan yooyu nga xamante ni moo koy wodd moom mooy moom la ñuy wax satisfaction du rek xëy na benn xas ko jëmale ko ci benn parce que su waxee iman rek mm-hmm. iman dafa ëmb mm-hmm. loolu noonu xam nga lu tax mm-hmm. parce que tey bu ñu lex ni jaamul yàlla ba mu mel ni mu ngi lay gis wala yaa ngi gis dama la jox benn exemple fii nii bu ñu la nee fii buntu commissariat la police HLM sañoo faa saw sañoo nga saw fa foofu laay waxee <laughs> sañoo dem ba ci buntu police nga saw fa parce mu ngi lay gis wala yaa ngi koy gis wala gaañ la mais tey jullit bi li muy def lu bëri bu ci jàppoon ni yàlla ngi koy gis wala mu ngi koy gis du ko def voilà sedd sedd yàlla ci jëf yi d'abord bu boobaa xam nga lan mooy sedd bi mhm. moralam lay oddoo waaw nee nañ cette conscience qui est dirigée par l'enfant mhm. on s'appelle toujours ça le pendule ñu ne ban pendule la dafay nekk ci benn esprit d'ouverture esprit boo xamante ne dafay nekk dans le monde de donner et de recevoir parent bi moom mooy donner lan lay joxe leer mais xale bi xam nga lan lay taxawee lan lay recevoir li nga xamante ne moom mooy kersa mhm. bu recevoir kersa bu taxawee ci société bi moom mooy nekk référence bi bu boobaa c'est une enfant parmi toute cette génération qui marque là ce point buñ delloo ci téere bi jikko yi na jikko yi xam nga lan moo tax mu yàqu mm-hmm. dañu nangu en endoctrinement bi mm-hmm. boo xoolee bu njëkkoon mag ñi dañu jiitu woon seen njaboot mm-hmm. tubaab bi ñëw wala mu ñàkk ñëw yëpp jiitu nañ ci ñoom defar nañ leen boot boot nañ leen préparer leen ba buñ ñëwee gis nga cible principale bi jiitu boobu nag mhm. la ñu bëgg indiwaat pour su ay doom doon ay référence wala suñu ay doom mën a génn ci guuta bii ñu dugg tey mooy jiitu boobu ngay mhm. sous-entendre foofu ci suuf moom laa bëgg ñu indiwaat ko xool parce que affaire bi dafa dafa bloqué de dañu waxante dëgg dafa bloqué merci yàqu na mhm. xale yi am nañu fit xam nañ lu bonte de li ci gën a yéeme mooy dañuy gën a xarañ ci caay-caay ndax ndax technologie bi dafa gën a yaatu gas-gas boobu foofu la bu ñu nee carte sur table. Mhm. am na koo xamante ne dafay parier. dafay parier. Mhm. mais kii parier li nga xamante ne mooy ngorom kooku kenn mënatul si moom dara. <laughs> déedéet déedéet parier. ñu ngi naan ñoon perte de valeur perte de valeur. Mhm. bu njëkkoon ñoom am nañ perte de valeur. amoon nañ ay valeur yu ñu tenir. mais ñun fi mu lii seexu naaw. valeur la ñu yoratu. <laughs> moom la ñu raflé. non non. xam nga yàlla bu ne laa infisaama mm. da ngeen accroché wu mu bañ a fireeku mm. mu tegal ñu si wala ann axlal xuraa bu fekkonte ne waa génération bii mm-hmm. amanu gëmoon nañ war taxaw te topp njub gi mm-hmm. mu ne la fatax naa dafay ubbi alayhim si ñoom mu ne barakaatin lépp lu barkeel mu ne sama iday tukkee si asamaan wal ardi ak suuf xam nga nga delluwaat si naxante bi ñu nekkee mm-hmm. régime bi bu jaaree fii di ñu nax mm. mu nekk homme de Dieu yi homme d'État yi homme d'affaires yi économie bi sooxee ñun mënuñu defaral dara suñu bopp. ñun ñun nag ñoo njëkk a nax suñu bopp nag. dañuy taxaw rek ñu ñuy indil rek ñun daal dañuy recevoir rek nañuy lekk rek yaafus nii rek te duñu mës a xool lu ñuy lii mu indi ñu li nga xamante ne manger pour vivre. ku dem ba am taxawaay boobu war nga xoolaat sa bopp. ah manger pour vivre moom bu ñu fa eggee. lu ñu jox lu ne da ngay lekk. mu ngi noonu nag. doo xool fu mu jógee. Hmm. doo xool noo ko amee noo ko amee baax na. dina tax nga sàcc dina tax ñu jox la loo xamante ne alalu jàmbur la dina tax it nga dugg ci loo xamante ne ngor nanguwu ko. xam nga li ngor nanguwul. Hmm. il faut ñu yor ay jikkoy bañkat. waaw eh maa bañ. doon ay faris. taxaw taxawaay boo xamante ne ñooy utal suñu fondation boo xamante ne moom laay wax fii tata sànq mhm. révolution ndaw moo koy def xam nga ban ndaw ndëg moo koy def mm. ndaw bi nga xamante ne dañ koo waajal sa ba nga xamante ne mu ngi si biiru yaayam ñaari nit ñoo ñaar yi ñooy defar si àdduna muy bi nga xamante ne moom mooy biiru yaay ji après alxuraan ñëw tegu di la defar. Mhm. di ne li nga xamante ne yàlla wax na ko alam nasra laka sadra mhm. bon bon yi nekk si yow lay dindi par nànk-nànk te jàng nañ ñëpp fàtte li nga xamante ne moom mooy sunu téere dafa nekk téere première classe lan la ñu gëmloo mu nekk ndëg benn marché boo xamante ne moom la def xam nga li ñu naan time is morning boobu nga xamante ne américain yi gëm nañ moom lañ teg kenn jàngaleetul imaam bi da ngay ñëw mu la ah seex bi mënal benn fatiha ah benn saar day sëgg xasib amul benn sens. wala wala wala nga mel ni kama xam Cheikh naa ñëwuma la kaa jox koo xamante nañ lay jox wird rek ne la lii moom boo ci jàpp rek saa yoo xëyee am dara da ngay for dara boobu de baax na ah caama boobu jox ko mère caama boobu baax na waaw yow en tant que yaay boo rombee gone mu ne ci mbedd mi ne ci lu ko neexul mhm. Mhm. ndax damay jàpp ni mbon moom neexul kenn ki ci nekk sax neexu ko mhm. mu am fit dugg ci tooxi doona yoo xamante ne xamoo kan la cay génn boo ko weddee nga dum ci kaso bi xool dafa nekk ci xale tey seen avenir yàqu na en tant que yaay lan nga yaakaar ni moom lañu ñu ba tax xale yi mel noonu maman Marie maa ngi lay gërëmaat bu baax te nuyu sama doom ji lay maxtaar kontaan naa fi ne moom am na yoo ma dugal laay ma dama foogoon ni laay laay. Mm. kii lañ mun def nii def nii def nii <laughs> nekk. ndekete am na yu ñuy làmboo ndekete am na yu ñuy ko du dafa am loo xam ne dafa ma mm. dama ko téye. Mm. dafa am lu mu wax bu njëkk ba sooy def euh, école douane sa waajur dañuy bañ. mukk doo ko def. day douane sax am na beneen boo xam tuuti tuuti aussi. mooy ñi ñi nangu ci kii tiki. douane sax man sama sama sunu kër dafa am du kere bi mu ko defee. xam ñun notre père fut douanier. Mm-hmm. ndeysaan maa jox ko jóg sama papa yàlla na ko yàlla def. suñu jeune frère ko douane te kenn yëgu ko. Mm-hmm. ñun yëguñu ko de dañu jékki-jékki rek gis ni at mi na keroog sama tante ma di wax. ma ne ko tante loolu wàññul dara mu ne douane baaxul ma ne baax. Ah, <laughs> noonu lañ déggee woon douane. nekk ci ba retraité ci amuñu benn problème. Mm-hmm. mu ne mag ñu jëkk ña bokkuñu xale léegi ndax mag ñu jëkk ñi bëgguñu woon dara seen liggéey ñëw. te léegi jamono dafa dafa doy waar xale dañu bëgg alal bëgg nañu luxe mun nañ dugg ci lu ñu lu ñu xamul far yàlla dogal moom mu nekk douanier te macha allah tamit teg na ko ci yoon mu sama sama sunu dara newul ci métier bi ñàkk koo dégg rek la woon Ismaïla mooy nuyu baax ndax ñoom koy teg ci yoon mhm. waaye bu jëkk dañ naa loolu boo ko nekkee mhm. da ngay lekk riba lu ñëw parce que xalaat da ngay nangu alalu jàmbur mais bu ñu bu ñu gëstu woon xool ki ngay nangu alalam lan la def ba tax ñu nangu alalam xam nga loo gis yoon la mhm. lii bu mu jaar fii waru jaar fii lii fii la war a tege na tege foofu am déet mm-hmm. mais ñu ñettoon suñu bopp maman da nga wax ci xale ah, dafa bu la waxoon noppil nga ne maa lànk damay wax xam nga xëccoo lay boo continuer wax mu sanctionné la nga ne ah mayta kay waaw nangam moo tax loo gis rek dafa am yoon ñun ñun suñu bopp ñun ñooy mm-hmm. tooñ parfois mm-hmm. dañu wax léegi ci xale dama ne maman Amar wax di ko waxaat sa doom rek ngay bëgg mu gën la muy dëgg nag ku sañoon ku sa doom lay gën da ngay romb ci mbedd mi gis doom yoo xam ne yow sa bopp da ngay jooy man dugg naa rapide man ak benn maire ñu ngi toog maire bi jékki-jékki di jooy ndekete mi ngi gis benn xale. buy fóon nii. Oh. di fóon bi mu ne ay. mu ne ay waay kii ana ndeyam ak boo gisee xale bu góor bu yiw boo. xam ne boo ko xoolee mi ngi am ay vingt ans vingt cinq mi ngi jàpp. ko semé xool mi ngi def nii ku mu jub rek nga moytu. ku nga moytu maire bi di jooy mu ne. te ñun jigéen biir moo jur ku ne. Mm. mu ne xale bi ana ndeyam ak baayam. mais bi di ko jooy mu ne ko xale ki yar mu ne bu wallaay boo demee ndeyam yar na ko. boo demee mbaa dundul sax wallaay de sax boo demee ndeyam yar na ko mais sa doom rek ngay bëgg mu gën la. man mhm. damay ñaan di wax ni yal na yàlla jubal sunu njaboot. ak bépp njaboot. ndax maman. Mhm. nit juddu na amul ndey ndeyam de. waaw yar ko mhm. mu tumuraanke xool yàlla teg ko ci yoonu siraatal mustaqim nit juddu na fekk ndeyam ak baayam nekk di ko yar di ko yar te fekk. mu safaan def ni dëgg la yal nañu yàlla jubal. mooy ñaan bi ñuy wax ne waajur duñ tàyyi di dugg seen ruq di julli di ñaanal seen njaboot sama benn maam day wax ni biir moo jur ku ne. moo jur avocat. moo jur imam da ngay jur rek maman naka ngay amee sa doom nga xoola doom ni mu neex nga yor ko. Mhm. di tatagal di neexal di teg ci yoon mu xëy rek def safaan buñ nee pur nga daw nga ni sama doom loolu neexul benn yaay. Mhm. man nee naa leen nañu war nañu bàyyi yaay benn yaay buggul sa doom bon xale yi ñoo xaw a doy waar ndax bu la sa yaay nee bàyyil ngay sàcc di tux ci el bi. Mhm. boo ñëw boros sa gémmiñ yaay foo na sama gémmiñ tuxuma de. danaa defoo dara te bu sa yaay tëddee di nelaw. yow sa biir néeg yaa ngi loo xam ne sa yaay xamu ko. Mhm. ndax léegi yaay yi am na yaay yoo xam ne ay intellectuel xam nañ lépp. mais yaay yi am na yaay yoo xam ne xamuñu sax xamuñu sa tux mi tux mi ak ndoxum li njaar mi seen doom yi jëfandikoo. xanaa mu xëy seen gémmiñ. Mhm. waaye am na ñoo xam dañu koy defal ba nga xam ne yaay dañuy toog seen def te seen yaay du xam ne moom la ñuy def. d'ailleurs suñu élément ba li ñu amoon semaine bee ñu génn. Mhm. ndaw si nga xamante ne moom lañ ci interviewé woon ndeysaan mu doon daan def drogue. ba dellusiwaat yàlla soppi ko mu bëgg cee génn mhm. nee na li ko ci gënoon a mooy drogue dure bi lu mel nii bu weex bi ñuy fóon mhm. du daawul xeeñ mu ne moom mu ngi tàmbale woon ci cigarette après tox yàmba mais bi mu jógee ci yooyu yëpp dafa dem ci bi nga xamante ni mën na ko def ba pare te kenn xam ne def na ko ndax xeeñu waaw cocaïne ah, hmm? ah? cocaïne xam nga du xeeñ xam nga bu dee yàmba boo xeeñu ne ak ah, kii de mi ngi toog mm. mais koo xam ne da def dara ñëw toog te kenn xamul li nga def xam nga loolu moo gën a metti mu lay yaa ngi yàq sa bopp te sa yaay ji nga toogal xamul sama doom ji mm-hmm. lii lay def moo tax man xale yi daal yàlla man dama leen ñaan rek yàlla teg leen ci yoon mm-hmm. ndax maman boo génnee gis xale yi fii ndakaaru gi mm-hmm. mas waxuma gis nga góor loo munti def boo jubee soppali ko foo dugg am jabar dëgg la parce que xam nga loolu. dafa lu la neex. góor kon sañ na ne ci lu ko neex. non bu question sax sañ na lu ko neex. Mhm. xam nga jigéen moom. Mhm. dañ naan jigéen moo jig góor jigul jigéen man gis naa fi xale yu góor yi xam dañ nekkoon ay xale yu góor def lu leen neex di tuuti mais xoole bu ñu tegoo ci yoon. Mhm. nekk fu ñu dugg may leen jabar naan yaay takk da daan dem jigéen da koy topp mu doy waar. yi di façon yërëm man góor sax mun naa ko pardonner tuuti ndax bu paree rek. Mhm. ba bàyyi lépp tegu ci yoon di liggéey am diineem rek mu dugg am jabar waaye bu dee jigéen bi. Mhm. dama laa dégg jërëjëf Thiam mhm. fi wax dafa am solo mooy li jig góor jigul jigéen xam nga jigéen day ndab dama koy faral di wax ni ndab boo xajamee rek lu ñëw lu ne dafay xajam li jig góor jigul jigéen mooy jigéen même bu fekkee dafa génn ci mbir duggaat ci leneen yi way wi dafiy des ndax cosaanam dafa sori seexu naa sànq da indi ñaari raison yi faral di indi gone yi tax ñu féttalu ne ci li leen neex mhm. bu njëkk bi da nga ne société bi la mhm. beneen bi nga ne am na beneen leneen loo xamante ne bokk na ci li yàq yar bi lan la moo nekk ni dafa am benn cassure bu am entre kër yi ak mhm. société bi balaa may dugg ci loolu méttiama gis nga naa la wax tey benn mbir ci société yi normal ci àdduna bi yëpp am na yenn corps de métier yoo xamante ne fii ci Sénégal li ñu am ci alal muy douane muy yeneen ak yeneen dëgg bu baax la ma la wax de. dëgg bu baax la am juróom benn kër juróomi kër ci yenn koor rek nga ko mën a gis te bu dee ci réew tubaab yi man maa la wax li sañu ñu ko am dañ ko sañu dama la bëgg xamal ne seen éthique ak seen kii moo leen ko mayul sañu ñu ko am fii nag Sénégal dañ koy am ne ko daañu fàgg ñëpp naan kër yi diw de am na juróom moom moom kër gi moo naan sa modèle boobu noonu ñuy jox la jeunesse jeunesse bi di jàpp ne que ni lii pour nga am ko gis na ni xaaral gis na ni benn médecin wa ngi def kii amut loolu su ma demee médecine du ma am dara lii laa leen defe ji pour kii nga gis benn waaju politique benn politicien xam musul am benn fonction musul liggéey dara xëy bés ñu ne la moom moom lii moom moom nangam sànq modèle yooyu noonu ñuy jël di leen di di leen teg ci kanamu télé bi di leen wax ne loolu mooy pousse la jeunesse que ñuy dem ci yooyu noonu seen seen bopp ñu jàppee ñun Sénégal. kon kon liggéey bi daal moo soxe lijjanti bee ëpp liggéey. bi moo jox mooy modèle mm-hmm. sociale bi am ay kër amee nang sax. Mm-hmm. mais joxuñu modèle de réussite boo xam ne tey modèle bi mooy que tey nit ki dafa war am alal joo ne ci ñi la ko war am tey que même nekkee ci baraak mu nekk mu gañ ak vie vie dignement mm-hmm. ñun modèle boobu noonu lañ ñu jox Sénégal ñun jeunesse jeunesse bi amatuñu loolu comme modèle loolu benn la. par rapport ak te gis nga Seydou naa dëgg fa gis nga corps yooyu suñu amee lañu naan c'est normal parce que moom lii la. te loolu nga yaakaar normal c'est pas tegoon ci yoon rek ni war a seen fel ak lu loolu te loolu c'est flagrant te xam dara te te kaay non xam nga ku nekk ku nekk ak sa wërsëg seulement problème dama bëgg a ñëw ci lim rebondir ci li boo jàngee salaire de xam ne fi mu war a yem de euh, jàng na billaay loolu si fii bëri teg nañ leen bu dem def rek man kon bu ñu bëggee kon suuf bi dafa sori de parce que fi ngay wax nii. Mhm. sànq maa ngi wax nii kenn mënul maye loo amul. Mhm. mag ñi fi nekk foog bu ñu bëggee yar xale ñoom dañuy njëkk a yaru léegi parent bi nga xamante ne moom dafa xëy am bien yooyu nga wax te mi ngi ko amee ci corruption d'après li ma la dama mhm. koy euh, globaliser rek pour ñu xam. pour ñu mën a avancer. mooy kii du profession maanaam du métier du salaire mhm. moo ko may lii mu am tey mhm. am na lu mu def ba am loolu mhm. kon kooku bu yaree doomam ci loolu wala ñi nga xamante ne dañu koy xool dañuy fexe ñoom it bu ñu bëggee mel ni moom def li mu daan def moom la man la ko moo tax man la ko sa man man la bi tey ci boppam kon xaw tey li ñu mel moo dama xale bi tey dañuy wax naan of day wax naan que ni démb tax ñu naan tey waaye tey moo tax ñu naan suba ñu nga tey société bi ni ñu mel tey soo fekkee da nga nekk ci société boo xamante ne yow yaa ngi nekk xale sa kër gis ni ku yoru ci biir kër gi ñu ngi koy troxal bokkul nangam sàng yoo gis si bedd mi gis benn waajoo xamante ni mu ne te lam ko amee ci ger la ko amee nangam sàng yow boo demul vers loolu yow ci toroxal ngay nekk kër gi yow ñaari torox tànge moo nekk sa dund ci kër gi mhm. ñaar yooyu rek moo nekk sa kër dama la bëgg comprendre que ñi ñuy joxe comme ay nit ñi di ko gis mhm. ñu nga xamante ni ñu ngi dund di dundee seen ñàkk mais tey Sénégal ñi ñu gën a valoriser la bëgg xamal ne tey su doon réew yu am doole ñun ñun dugg loolu dañ leen dañ seen sac ba tey kenn dootul sax bëgg dem def jël wala boo duggee si métier bi doo def loolu mais tey fii Sénégal da nga koy def ba dem retraite dara du la ci fekk. ba léegi réew tubaab bi topp la bu yàgg. kon système a demee doxul lu mu war a gis kenn ku nekk koor dañuy proche protégente dem dugg tey ma jox la benn exemple benn booy daf sama benn euh, rax barki dem dafa dem di légaliser ji euh, ci benn police. Mhm. nee na mu ñëw dugg sol shortam bi mu ñëwee dugg sol short am short kaki ni ñëw dugg di jël si muy légalisé waaj na ko yow yow fii xanaa xamoo ne fii du seen kër fii police fii kenn amul droit sol short mu ne ko noo xaw ma ko rek beneen waa ji génn fa ne ko eh ci biti mu commencé mu ne ko waay eh xoolal saaga ko léegi su fay woon foofu wala dara am foofu noonu dañ koy jël te léegi solidarité de corps c' est des choses yoo xam ne correct na aussi dem si yenn kii non ne noonu kenn du dem si xamul tax xam nga xamul tax non xam xaar ma wax la gis nga tey gis nga bul xool ni moom correctul moom dafa toog di def devoir am non euh, dama ne force euh, nag loi moo ko moom dama ne dama ne loi réglementé wul solo bu ñuy demee ci fenn ak fenn gis nga nit non attends rek yoon gis nga nit sooy atte yoon mhm. da nga koy atte ci yoon yoon tey gis nga tey mu ngi mel ni xam nga la mhm. nga nit bi rendi na nit nga ne rendi bi ñaaw ñaaw na fekk ñu waroon ko tëj benn at nga ne non yoon bi benn at la wax waaye bàyyi ma toog ko fukki at da koy atte ci texte bi gis nga euh, Cheikhouna non mais loolu sax daa mais damay ànd ak yow d'une part mais beneen part bi ànduma ci ak yow xam nga lu tax mhm. xale bi génn sol shortam dem ca police ba waru woon sax génn ak short surtout mhm. du ci tenue boo xamante ni da nga koy génn pour di ko dem. bu tubaab ñëwoon sol short kenn ko non attends may ma rek. non non oui ma non mën naa est-ce que mën naa rafet est-ce que mën nañ est-ce que mën nañ rafet loolu loolu du problème suñu société. man gis naa tubaab sol short ak ay ko dugg te police kenn wax ko dara. comportement kaay ma ko biir palais suñu biir palais. comportement palais palais suñu biir palais. comportement damay seetlu non El Hadj Diouf dugg na biir palais. sol short kaki. mais est-ce que c'est normal. non c'est normal. c'est pas normal du tout kaay ma ko sax normal. c'est pas normal. non kaay ma ko sax normal. lu tax normal ci suñu société waxuma la sa normal ci teg ko su benn côté kaay ma yegg suñu kaay ma suñu société mooy ban société mooy société boo dafa nekk à cheval entre ñun ak Occident tey fii vacances jotee euh, Issa mi caméra bi ñun ñëpp dañuy sol short kàcce dem plage dem feneen feneen c'est pas normal non su loolu c'est pas normal loolu boo ko defee c'est pas parce que yaa ngi koy def rek nga yaakaar ni bëgg non non wax ma léegi wax ma lan moo ci normal sol short kàcce waaw fii Sénégal surtout ak bu mu mënta doon ka teg ko toog kii ak yëpp a dafa war a génn biir kër bu fekkee dëgg rek lañ bëgg a def short warul génn biir kër warul génn biir kër

des sénégalais muy mag ak ndaw dañ koy sol génn ak. c'est pas normal non attends xaar xaar man nga bañ ko accepté mais dama ne la société boo génnee si benn bi léegi. tàngaay gi la société l' ma dellu si débat. par rapport comportement ngay ñëw foofu. foofu xam nga mhm. ma ba ko doon wax léegi. lu mhm. bëri li tax du mën a am mooy que solidarité corporelle. bi nga xamante moom mooy am ci biir yenn koor yi moom mooy tax que tey du ñu topp ñenn ñi parce que ñi leen war a topp mooy dañu bokk ci koor bi ma ne kooku doon def loolu noonu tey bi mu defee loolu noonu amee réaction boobu noonu ki nekk ci comme jiite ko waroon na ko ne comportement bi mu amee waru ko amee yow comportement bii nga amee lii waru ko amee yow yaa ngi ko génne ko ak saaga bi. ñaar yëpp waaw waru ko saaga. yaa ngi loolu benn la léegi léegi léegi léegi beneen bi sax du loolu beneen bi mooy que dama la nekk dafa am beneen bi mooy loolu. je demande kañ la ñuy am euh, solution pour mën a résoudre yenn problème que bu fekkee ñi war a déglu nanguwuñu déglu. ñi war a exécuter nanguwuñu exécuter ñi war a joxe ordre meluñu ni méngoog ñi war a joxe ordre. joxe ordre je me demande kañ lañ fi. léegi nag loolu xam nga la moo ko indi. Mhm. benn mag daf ma wax benn wax bu am solo. Eh mu ne ma bu njëkk mhm. soo dem armée wala ngay dem wala ngay dem douane wala def mu ne nga doon dem par conviction donc métier da nga ko bëggoon mu ne léegi ce est plus le cas. gagne la mu ne léegi gagne-pain la. Mhm. mu ne dañ ciy dugg pour am dara. mu ne bu njëkk nit ñi dañ amoon ay fa dañ ciy dugg par mu ne léegi nag nit ñi dañ ciy dugg pour am dara mu ne léegi nit ñi duggatuñ ci parce que tey dañu bëgg servir dañu bëgg servir seen nation wala nang sax mu ne bu njëkk dañ saan dugg par amu mais léegi ce est plus le cas loolu benn la mais ci li may rebondir ci kii bi mooy que tey éducation la première des choses pour yar sa doom mooy li ci jiitu mooy nga takkal ko yaay mu utal ko yaay ju baax waajal ko waajal ko jigéen mais mais papa. daañu mhm. wax gis nga papa. seexu naa ma këpp tuuti dugal mbokk mi ñu dellusiwaat ci yow. Mhm. am na mbokk mu lañ nekk ci ligne bi asalaamaaleykum ku baax ki waaw soxna Mari sang bi. waaw ñu ngi lay fay di delloo ziar. waaw kii maam loo lañ koy wax sànd garu ku montre. maam. Mansour Lo. waaw loo si la ko jëkku ba loo. waaw ñu ngi lay ziar bu ma may ko. bisimilah di ziar ñu nekk ci plateau bi yëpp. ñoom seeku naa ñoom. Euh, di rafetlu émission bi bu baax a baax. jërëjëf. Mm, di leen jaale tamit liñ bokk. mooy li amoo ko ko jaal amoo ko ko jaal. soxna Zeynab Fall wax dëgg yàlla nekk sunu soppe sunu xarit. wallaay sunu genn wàll. waaw di ko ñaanal yàlla fa mu nekk yàlla ko gënal fi mu jóge. amiin amiin. yal na yàlla bindal ko yëw mhm. loolu ñu ngi koy jaajëfal dem na bu keneen ñu ñëwaatee rek ñu jël ko seexu naa nga ni mhm. ma ne gis nga yaay mhm. parce que tey gis nga doom bi boo ko juree ba pare ci kër nga koy bàyyi te soo ko bàyyee ci kër gi ki war a toog ci kër gi wattu par rapport ak lu bëri ci jikko xale beeg valeurs yi yooyu noonu yëpp parce que doom yor c'est pas important doom ñun dañuy jaawale baatu yor ak baatu yar doom dañ koy yar dañ koy yar ci lan ci ay valeur valeurs yi am ñun pas valeur yi ñu am sax valeur yi nga xam te dañ ko partagé ak àdduna bi yëpp ñun kese moom ñu ko parce que c'est des valeurs yoo xam te ne moom mooy tax nit ki gën te àdduna bi ñëpp bëgg nañ kenn ku nekk bëgg nga li nga yor mu gën mhm. muy ay jom muy ay fulla muy ay fayda parce que ñetti jikko yi ni su nekkee ci nit moom mooy tax du sàcc jom fulla fayda waaw ñetti ak yi bu nekkee ci nit mhm. moom mooy tax nit du sàcc mhm. mooy tax nit du nit du wàccee boppam mhm. mooy tax nit du fen mooy tax nit du def nit jomm jomm yooyu noonu ñëpp ñeent yi bu dajee ci nit ki rek day ne si léegi nag bu njëkk dafa amoon ay yaay yu toogoon ci kër gi di jouer boobu noonu parce que tey ki jigéen ñi toogatuñ man damay fàttaliku bu baax ah. man dem naa bay def CM2 lan moo ma dem naa bay def CM2. Mhm. su ma yeewoo su ma teel si douche bi sama yaay sangu ma sangu ba pare. Mhm. su ma ñëwee sama néegu yaay lay taxaw taxaw ci armoire mu xool ma diw mu pañe ma tàpp tàppal sama bopp ba cm laa dox de. Mhm. est-ce su ma wàccee tey tey xale jigéen xoolatuñu seen saagu doom yi. man dañ ma dóor ba sonn sama saag ndax mango. dañ ma ci dóor ba sonn da ngay ñëw rek ñuy li saag bi. dama daan exemple dama daan ñëw dugg maa nga doon jàngi Ville sama papa nekk RTS Uh-huh. damay ñëw su ma duggee res naag sama papa di wàcc en face Sorano ministère de l'intérieur si ginnaaw uh-huh. amoon na garab mango fa nekk ma ñëw dugg huit ay mango dugg ko uh-huh. sama sac su ma papa li muy toog oto bi dawal mu ngi xool téléviseur di xool sama sac bi sac bi parce que dafa anormal suivi familial su ma wàccee rek sac bi lay jëlam mais daf ma ci dóor ba tay dem na benn es pour wax la ne la yii c'est des choses yoo xam ne parce que tey doom bi mhm. tey voilà nga xam ne lii yaa ko jënd mhm. sa doom ñëw nga ibbi saagam ñëw gis big boo xamante ni moomu ko li muy tuut tuut tuut c'est très important daf ko jël ci xaritam instant quoi yooyu c'est des choses yoo xam ne tey doom dañ koy topp doom dañ koy xool doom dañ koy yar mhm. dafa ay détails yu ndaw yoo xam ne ci lañuy yare mais tey ki xam ne moom war a saytu loolu loolu ki xam ne parce que papa ji su yeewoo tey 7 heures matin 6 heures demi sangu solu dem liggéey balaa muy dugg si kër gi mhm. moom dafa sonn dafa sonn dafa war a noppalu ko moo tax tey alxuraan soxna kër yi seen jabar seen ay noppalukaay la noppal bi nekkul ni mu noppal la bàyyi la nga ne naan mais mu noppal la ci yi nga xam te ne yow da nga waroon wàcc di ko def moom fekk na moom def na ko mooy surveiller njaboot beeg yooyu noonu institut yooyu noonu yooyu c'est des choses yoo xam ne tey dañ ko waroon def mais tey société bi toll na foo xamante ni mooy li kii wax sànq ne am na benn saal boo xam ne yàlla nee na di nga daw ci ginnaaw njaboot gi ba teg sa bopp fitna mm-hmm. léegi ndaw si ginnaaw njaboot muy daw noonu bàyyi kër dem liggéey dana ba ba doom ji amee vingt ans vingt cinq ans ci ginnaaw fitna lay nekk parce que doom ji mu ngi dugg position mu ngi dugg jikko yi mu am amu ko institut mu nekk ci fitna bu wax bëggee wax ak doomam beneen bi mooy ko tey yar sa doom jiitu na ci tey ku jigéen ki mhm. yow ni ngay comporté woo ak papam mhm. Mhm. papa ji ni muy comporté woo ak yaayam gis nga tey setlul xale bu yaayam di yoon yónni muy bañ wala xale bu yaayam di woo muy muy taxawaalu wala muy wala bu yaayam woo ko setlul comportement am diggante moom ak jëkkëram dama koy faral di wax chaque man man dama def benn seetlu sama seetlu la ma personnel jigéen boo xam ne su ko jëkkëram wooye na toog 30 minutes wala une heure temps dooga am li muy bëgg ci doomam day jafe

demoon benn koo xam moo ñu magoon ku tuddoon Makode. mais tout le temps Serigne Diop moom la doon si lépp ku kii Makode la mais li ñu da ngaa ne da ngaa ragal def li Makode di def parce que lan soo ko defee parce que tey éducation koy ko moo tax ñu doon ne yar ay moo gën a yomb yar benn xale. c'est pas facile te nag li ci gën a euh, doy mooy comme ni ñu ko waxee euh, mag ñi dañ daan waajal seen bopp d'habitude sax bokkoon na kii li taxoon ñu daan teel a sëy parents yi di daan tax ñuy teel a sëy pour teel a fonder seen famille pour bala seen doole di jeex mu am ku leen aw mais xoola benn saxaaba. Mhm. dañ may dañu am benn kii bu may dégg benn xisa bu may dégg ñu ne dafa am benn waajur dafa am bés toppatoowul waajuram bu góor. Mhm. ba mu waajur bi ñëw clamé ko yonent Salma alayhi salaam. bu ñëwee clamé ko yonent bi móolu ko. Mhm. ba mu ko mooloo mu ñëw mu commencé ko xas mu ne ko mais xanaa mën nga maa may droit pour ma wax. mu ko axankañ ah, mu may ko pour mu wax mu ne ko kii ñett yi dafa daje ci moom. Mhm. mooy ko benn bi ndey ji mu wutal. du gën du nawle du koo xamante ne man nawloo naa ko jur na ma rek mais ma ko ndaxte koo xamante ne la da doon taxawaaloo day naan kii di naan ma sànq kii mhm. mu ne ko beneen bi mooy ko jàngalu ma dara jàngalu ma diine jàngalu ma dara beneen bi mooy que kalbu la ma tuddee xaj naka la nit di xool di ko tuddee xaj. waaw dara moom loo ko tuddee lu ko tuddee lu ne ku mujj bàyyi moom. Mhm. mujj jox toor bi waajur pour wax la que waajur tànn foofu noonu mu ngi wane mu ngi wane que ni tey waajur su fekkonte ni tey tànnaloon na doom bi gën yaay euh, euh, euh, doom ji. Mhm. amaana sax su ko bàyyi ji jàngul diineem sax yaay ji dina ko jàngal diineem. Mhm. waaw loolu la ñuy wax ni gàncaxu sën moom. ci sën rek lay dellu. ba pare dama mos a wax benn wax ma ne ko moom lay daanalee. olof dafay wax naan ñun suñ société dañuy wax naan mhm. jigéen rek moo mën a waat ni dinaa ci sama sëy dinaa ci jur mhm. doom bu baax mhm. man gëwuma loolu man gëm-gëm bi ma am man dama jàpp ni góor rek moo mën a waat ci sëy ni man dinaa jur doom bu baax xam nga lu tax jigéen lu mu baax baax baax dama ko wax kër waxaat ko bu koy dundalee buñ koy jox buñ koy jox man niw boo xamante ni man niw riba la pour mu jur ci doom bu baax dina jafe mais góor su ko leer ni muy li muy dundee nii ñaqam la mu lekk ko mu lew ko dong mu rees li dem nekk ji man ni mu joteeg jabaram jox ko jabaram mhm. jabaram su baaxee war naa mën a waat ni doom ju baax la fay jur mhm. góor rek moo mën loolu loolu wax ni moo tax Cheikhu li mu doon dina ko jaaxal ndaxte oh. bàyyi mus ta lekk al mooy maa mus ko lekk maatamaat ma bés ko jaaxal na solo am na solo kooku waaye euh, comme niñ ko waxee waajal wi kon dafay jiitu gone gi laata muy ñëw maam jaara su ma ko déggee waajal bi bi ñëpp ñëpp d'accord mooy da ngay bàyyi day tànn ndey waaye ndey it dafa war a tànn bàyyi parce que man yu boobu nga wax ci góor lay génn ah, te bu fekkee ndey tànnul baay boobu moytul du am lu gën mhm. am déet mhm. kon tànnante la mhm. pour waajal gone parce que man buy génn ci góor ci jigéen lay dellu waaw kon ñoom ñaan ñëpp ku ne. jaxasoo lay doon. da nga magasin da koy fa la koy denc. waaw kay magasin produit bu baaxul magasin bi baaxul. Mhm. ba moytul li ñuy génnee moom mooy loolu. Mhm. am déet waaw loolu moom loolu moom mhm. dëgg la jigéen ak góor ku ne. nga sañ-sañ yow waat. ne mun nga fee jur doom ju baax. mais mais mais maman. Euh, wax ji du foofu seef naa fa wax lu am solo gis nga maman. gis nga tànk jëluñu jëlaatuñu jot. waaw delluwaat ci suuf. xool ñun suñu yarin ba pare. balaa ñu koy delloo suñu doom yi. Mm-hmm. dina dina dina jafe loolu. affaire yi changé. Mm-hmm. parce que ñun ñuy yar il faut que ñu ñu natt ñu def kii ñu def séminaire. Mm-hmm. natt suñu bopp. dugg sa ruq def sa autocritique bopp natt suñu bopp xool ñun nan la ñuy yaree. parce que gis nga dafa am yoo xam ne ñu ngi koy bàyyi muy jàll. gis nga man maman du ma seetaan film. déedéet film rayante yi. Ah. mu noo wax ba ma seetaan ko. da nga koo ragal da nga ko bëggul. non non dafay dafay yàq jikko dafay yàq xol. amna ku ne ci ligne bi ma dalal ko dellusiwaat ci yow asalaamaaleykum. waaleykum alaykum soxna si maa ngi ziar. ñu ngi delo ziar sang bi. maa ngi kontaan ci ci ñoom bi. jërëjëf yalla na yàlla wa waa ne waxtaan bi amna solo rek. jërëjëf bisimilah sa xalaat. wa di féliciter sama jigéen boobu attu. Aysatu. oui. Aysatu Laay Maktar Wil. Laay Maktar. Mhm. Eh, maa ngi ziar ma la Moustapha Pif. Pif ok Pif ça va. waaw ça va la ça va Thiori ñi. waa émission bi ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax. amiin amiin. waaw yow jërëjëf kontaan nañu. amiin jërëjëf. ah euh, képp kuy julli kontaan na ci yow. Hmm? jërëjëf. kon rek yàlla na yàlla jàppale leen bu baax. amiin amiin. waa di wax euh, abi li mu wax ci jikko yi. waaw. muy sama baax ko ma daan faral di wax ma. Hmm. Euh, tekki. tekki. lii tax ñu naan tekki dëgg. waaw. mooy amoo fenn sens interdit. jëloo alalu jàmbur. ko amul fenn sens interdit. waaw jëloo alalu jàmbur fenoo triande kenn. Mm-hmm. loolu mooy tekki dëgg majeur. Mm-hmm. mais bu fekkee ne yow nit dafa yor loo xamante ne nii saa bu si nit daw wala mu laa xatu. Mm. kon kooku tekkeem amul solo. parce que am na lu mu kiriyaande wala lu mu def loo xamante ne. <laughs> doy na waar muy doxale noonu. doy na waar. Hmm. tekki bi njëkk mooy. Mm-hmm. kon yàlla nañ euh, jàppale xiin ñu si boppam. amiin ay waajur yoo xamante ne nii. ñu ñuy parce que li li pour man li indi loolu mooy. Mm-hmm. waajur yi dañu owatul seeni doom di waxtaan ak ñoom di leen yedd. Mm-hmm. parce que biir boo ko waxee ne que diw mooy sa yaay diw mooy sa bàyyi war nga sa doom sa bopp. Mm-hmm. ndox moom mooy kat ba mu xam boppam suñu génération dara suñu bopp. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw am na solo. man daal loolu mooy ci mais nag yàlla na yàlla xëy si bam. amiin amiin allah dinañ ci jëriñ. jërëjëf Pif am na solo. yal na yàlla fayal ñu la. kon waxtaan la jaara bu soo. xoolal film. xale bu koy seetaan. day sadik. parce que day jàpp ne moom li muy seetaan. loolu mooy réalité loolu lay bëgg di def te xale. bu nekkee ak moroma xaleem mën nañ fomé mën nañ xeex i xool seetlu bu baax xale bi seetaan film buy xeex buy xeex ak moromam li may gis ci film yi day yaakaar ne loolu la war a mën a def moroom loolu lay fowee sax après loolu lay fowee mhm. mu nekk loo xam ne dafa garaaw te te waajur yi bàyyi wuñ si xel man du ma seetaan film parfois ñu bàyyi suñu doom yi ci télé écran yi rek duñu xool lu ñu war tey pourtant am na ci bind wax ne âge nangam mën naa tàmbale seetaan li waaw gis nga mais dangay gis xale dànkaafu njaboot gi te te teewul dañ koy seetaan mhm. te bi gën a garaaw maman parents yi di ko def gën mokkal film yi de yi di ko def bi gën a garaaw mhm. mooy miimal sa doom waaw gis nga miimal sa doom. Mm. dafay lor sa doom te xamuloo ko. Mm-hmm. Mm. gis nga bu njëkk boo nit bu ñu waan jàpp sa loxo doom ne la moo def dara. sa mm. doom di def na lii doo ko weddi. mais tey boo jàppee doomu jaabu dem ne ko sa sa doom moo def dana xii sama doom kay du loolu. Mm-hmm. du xaar sax nga dem danaan carrément sama def loolu déjà yaa ngi may xale bi. doole boo xam ne mën na def lu ko raw loo xam ne yow. Mm-hmm. doo ko sax foogee daf may rappeler benn benn anecdote bi may bi may jàngalee yoru CI. mais dañ daan def benn cours du soir ak benn waa ju baax ju ñuy wax Buuba Saane mhm. léegi dañ daan yor ay cours du soir ba ci ay ay mag léegi benn jour ñu làkkatu dem géej mhm. ndekete am na ku leen gis ñëw wax ko diw diw ñii dañoo demoon géej te ñun dañ leen doon tere géej mhm. léegi ñu weddi ko ñu woo seen yaay yi ñu ne ñii de moom te ñun xam nañ dañoo demoon géej ñi sa seen doom yi dañoo demoon géej ñu ne déedéet ñun suñu doom mosul dem géej ñun suñu doom def nii buubaane garaaw léegi wax kooku boo leen gisatee filmer leen ñu demaat géej ñu filmer leen filmer leen bañ normal. ñu mm-hmm. ñëwaat woowaat seen yaay yu ñëw ñoo ne xale yi dañoo demoon géej ñooy déedéet ñu génnee vidéo yi ku nekk naan laay kon yow da ngay dem géej miimal sa doom. Mm-hmm. dafa nekk benn benn benn mm-hmm. benn benn kii boo xam ne. am na solo dafa doy waar ma maman. miimal sa sa sa doom bokk na ci li koy protéger protection boobu mooy sànq gone gi. baaxul ñu dem ànd ak Pape Ousmane mu wax ñu lan la ñu fas yéene indil tey ci xibaar yi waaw soxna mama sang bi noo def. maa ngi sant bu baax. mbaa yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant yàlla. lan nga ñu indil ci xibaar yi.

jigéen Euh, ci réew mi loole ñii xeex ak ak yelleefu doomu aadama yi bokk na ci waa RADDHO di ko rafetlu naka noonu it ñeen ci askan wi jàpp ni dëppoowut suñuy aada ak it suñuy cosaan daañu euh, jukkiite leneen lu ñu nemmeeku ci xew mi di ay xeetu firange yu ñu nemmeeku ci euh, maanaam couple yi la ca xew bokk na ca maris jenn jigéen ju bëggoon a taal boromu këram naka noonu it ñeen ci ay wujju yuy dóorante lii di wala boog jamante paaka ban gis-gis la ci askan wi am sunu ndaw di Chantal Batji def na ci ab gëstu bu am solo daañu leen ko jukki ci xibaar yi boole ci màggal wala bokk gàmm bi ñuy waajal jamono ji njabootu Seydi Hadj Malick si daje ak nguur gi lañ ca waxtaane bokk na ci ay matukaay jëm ci fexe waajal gàmm gi waaye mu amee eh, ci eh, jàmm lu ni mel eh, dalal xelu porte parole lu njaboot gi naka noonu ñii di waa Koskas daañu leen ko jukkil ànd ceeg suñu ndaw di Abdoulaye Ndiaye ponk yangook ngoog incha allah Zeynab mama bu benn benn waxtu jotee ñu daal di koy yaatal gis na sama xel mu ngi dem sax ci soxna Zeynab. jukki bi kañ lay doon. incha allah bu benn waxtu jotee. reportage yi ñu si am na solo de kon xam naa ku bëgg a xam ndaw sos nu mu mujjee mu toppee dina ci xam dara. la mooy ki taaloon borom këram. kon ñu lay jox daje ci kanam. incha jërëjëf sang bi jërëjëf kon egg nañu ci eh, njeexital bi xam naa dañuy ànd rek joxaat li nga xamante ni moom mooy jaar Mame Diarra Bousso ndax mi ngi woon fa am solo ñu nga joxaale sa ndénkaane ndax egg nañ ci njeexital émission bi. waaw comme miimal sa doom daal bu ma la déggee bokk na ci li yàq yaru gone yi. bokk na ci li gën a nag. ray gone yi yàq ñu leen dañ leen a rey. Mhm. tant que yaa ngi sa doom di def di def. nga koy weddil. Mhm. muy def nga koy weddil maman bés dina ñëw. mu def loo xam ne mu def loo xam ne. ku la waxoon ni lii sa doom dina ko def doo ko gëm doom lu ñu la wax ci moom rek dëgg la mhm. luñ la ne moo ko def rek man damay jàpp ne man sama doom mhm. luñ ma ne moo ko def rek moo ko def yow looy dénk mbokk li ma leen di dénk mooy gis nga maman mhm. boo demee école dañ lay jàngal conjugaison conjugaison bu ñu koy jàngal am na plus que parfait benn temps la bu ñuy conjuguer am na imparfait waaye am na parfait dañ la koy jàngal nga maîtriser ko mais yow boo ko jàngaatee le plus que parfait mm. n'existe pas mm-hmm. dekkul exister mm-hmm. l'imparfait mm-hmm. n'est pas une bonne résidence le parfait est une voie nous devons tous nous y mettre su ñëpp nekkee ci parfait rek def def def ni parfait di parfait di wër parfait la parfait société <laughs> parfait bon man damay ñëw si soumission bi nga xamante ne ñun war nañ ko am en tant que ñun jigéen ñi. Mhm. te dañu am problème mu leadership. Mhm. bi leadership tegoo am nekk suñu problème discipline ñëw tegu de côté. Mhm. sénégalais yi moom yaruñu. foo mënti dem mooy loolu. manque de discipline nga fay gis.

wane leen naax yoon bi te boo xoolee si alxuraan yàlla ñun la fi jox benn suraat mm-hmm. mu ne suratul nisaa in mm-hmm. te suraat bi dafa nekk suraat yoon mu ne an nisaa mu ne jigéen ñi mm-hmm. mais dafa commencé si li nga xamante ne yàlla dañoo beral de te xam yëguñu ne yàlla dañoo beral trésor la boo xamante ne doo comprendre sax tant que toogoo xamoo sa bopp doo xam trésor bi nga xamante ne yàlla moom la la defal da ngay xool sim bi daf lay teg si li nga xamante ne moom mooy sunna mhm. sunna bi nga xamante ne jabo xale bi jigéen bi moom dafay am fu muy teg ndax lan la si teg waaw dafay teg benn continuité nee na continuité bi daf lay teg si raa dafa lay indiquer li nga xamante ne moom lay yoon bi nee na taa tomb bi dafay suivre li nga xamante ne moom mooy doomam mu tegaat si ne alif 1 la nee na laam laamu moomel la mhm. femme bi nga xamante ne dafay jël di attribuer si li nga xamante ne moom mooy viwu doomam bu boobaa xale boobu bu jénnee dafay nekk koo xamante dafay exceptionnel mhm. mu tegaat li nga xamante moom mooy siim boobu ñëwaat mu nekk sunna mais li ma si amal importance am na ayin boo mhm. mhm. te yàlla daf ñu teg si li nga xamante moom mooy nuun daf ne prescription alquran la daf ne tilka hududallahi li mooy limitu yàlla mais femme bu taxaw jëw si kër rek ne li mooy limite bi macha allah yaa ma gën a xam <laughs> macha allah tabarakallah ndénkaane bi di ñëw fee lañ koy defee bi Jidda <laughs> yow teel na di doo bàyyi ba umra bi sax ñu ànd dem bàyyi ñu dem dénkaane <laughs> nag. ana yow looy dénkaane yow. ah xanaa sant yàlla baax di kontaan. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mhm. di la ziar mhm. naa da ngeen ko déggul rek. ay bagage biir la yow bi. Mhm. di wax ni nee na yal na yàlla jubal xale yi. amiin amiin yow luy sa secret en tant yar rek ak delluwaat ci diine. julli ñaan a jubal doom. xam nga man man yàlla dafa doog a jabootoo man benn doom laa. ndeysaan bari na mais damay tëdd ni mhm. mu tëdd ni ndeysaan benn jour ki def ne ma sama doom bu góor bi su màggee yàlla na mel ni sa doom ma ne ko lu tax. Mhm. ma ko ki nga xam yaroo mu ne ma dama gis yaay doom buy jege yaayam. Mhm. yaayam dina xam lu bari ci moom. bu sa doom tëddee nii. ngeen di waxtaan ngeen moom. nga koy wax àddina nii la lu muy def la après ah, sama yaay da waxoon na ma dama koy faral ko man du ma man du ma wéy te kenn bëggul suul sa doom bëggul sa doom suul la mhm. dama bëgg nga koy teg ci yoon rek xëy na teg ko ci yoon yaa ngi fi ba ci kanam di nga ko wéttali ci kanam kon bu ma la déggee mooy waxtaan diisoo ak jege sa doom bi am na ci solo jege sa doom am na ci solo jege sa doom balay dara di ko jege nga mhm. jege ko am na solo Cheikh naa mhm. ndénkaane bi waxtaan wi egg nañ ci jeex bi waaw bon ndénkaane bi rek mooy que tey ñun euh, société sénégalaise bi bu ñu jàpp ay xale parce que man dama gis ni société sénégalaise fonkul xale xale su waree wax dëgg sax ñu ne waroo koo wax su waree gis dara war ko liggéey sax ñu ne waroo ko def nangam sax maanaam xale bi maanaam nit dañuy nit day dem ba am 30 sax ñu ne xale la su waree wax ñu ne warul wax mhm. tey dañu war a joxaat gëdd xalem valoriser ko won ko ni moom dafa am xale bi war a jox gëdd dañ ko war a déglu non dañ ko war jox gëddam mhm. parce que gëdd mooy que nga wax ko ni yow da am part de responsabilité ci société bi mhm. nga accepté loo ko responsabilité yooyu noonu dund loo ko responsabilité yooyu noonu su fekkente nag moom dafa dem ba jàpp ne mu amul benn responsabilité day dem ba 30 ans jàpp ni xale la yaa danger man dama koy jàpp sama boppam man mii di wax ak yow. man su ma doom exemple bu gàtt lépp loo xam ne soo ma ko defee mu metti ma man. wala man su ma ko defee nit su ma ko defee mu metti ko. Mhm. billaahi du ma ko def sama doom. man bañ naa ko ba yuux man sama man soo ma yuuxoo ma mel. Mhm. suñu toogoon fii léegi ak koo mënti doon. Mhm. soo yuuxoo sama doom ci yéen man soo ma fekkee may wax ak sama doom soo tëjee néeg bi nii. billaahi wallaahi wa taala da ngay foog ni. mag laay waxal. parce que pour man pour man pour man xale bi ci gëm-gëm bi moom mooy que xale bi nit la d' abord amul xale la mais nit la il faut que nit bi mu am responsabilité moom nit la que dafa war nit waroo ko yuuxu pour mu def benn affaire waroo ko gëdd pour war nga ko wax benn affaire correctement mu def ko léegi nag xam nga di remercier soxna si madame Ndoye parce que aussi moom mu ngi ci kër gi xam nga yooyu yëpp moom am na ci part responsabilité <laughs> ah non si parce que xam nga que tey xaw ma lu xew ci gi te mooy watu njaboot bi wax la benn wax ah man dama amoon place uh-huh. moom restaurant uh-huh. waaw damay daanal fii ah, uh-huh. sama yaay chaque fois di ñoom dama ne sama jabar man du liggéey sama sœur bi nekk sama yaay ñoom ñëpp di ma ñef pression bàyyi ko bàyyi ko mu liggéey bàyyi ko liggéey mu ne daf may ñëw jàppale sa restaurant mu ñëw fa daaw ren ma gis constat ay vacances yi ma gis ni xale amul amélioration hmm. école di waaj tëj ma ko da ngay dem toogaat kër ga ñëpp wax mais man bi ma demee def remarque ni mu dem toogaat kër ga bi ma xoolaatee xale yi diggante bi hmm. j'ai vu changement kon jigéen ñi vraiment dañu war a di souhaiter joyeux anniversaire benn jabar sama rakku sama benn jabaru frère xam nga rakku Modou Ndoye jabaru Modou Ndoye happy birthday ko souhaité joyeux longue vie ak natifu euh, euh, di bëggee madame lu bëri nag sama bos jërëjëf Cheikhouna ah, merci <laughs> jërëjëf kon jërë ngeen jëf ah, baa ngi noonu li ñu amoon ci ay waxtu jeex na daf ñoo dab ëllëg di leen wax ne Maxtaar mi ngi leen di jox dig daje fii ci plateau bi dina ci dalal mbokk yu baax ñuy waxtaane li nga xamante ni mooy làquk xalifa bi kon suba lay doon fii ci plateau bi ci ndénkaane Moxtaar dina leen jox dig daje incha allah ëllëg ci waxtu yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di wax ni li rat ci waxtaan wi ñoo ko déggandoo li ci rafet ñu ngi koy sant yàlla li safaanu euh, ngeen xam ne ci ñun la ndax kenn matul yàlla rek a mat bi ñu fiy toog am yéene jubal am yéene ngeen am résultat bu euh, positif moo taxoon ñu toog fi kon ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen te di leen wax ni lu jiwoo jeexul jógu fa am mosol dafa gën leen waaye tuutee gën tuus jaa ngeen jëf mbokk yi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 ولا ادنا ديجيني داك في صح والله نحنا سا بوب ادنا كين في صح الله اكبر الحمد لله